lañ war a doxalee ak sëriñ si joor boobu nag mënees na ko tudde vidéo yi léegi vidéo yi joor la génn sa vidéo rek sànni ko adressé ko benn sëriñ wala adressé ko benn xalifa général ci xalifa yi vidéo boobu joor la bokkut ci meloy murid saadex loolu ñu di ko moytu di ko baax a baax a baax yàlla suñu borom tere na ko saxaaba yi nga xam ne ñoo àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam sëriñ bi waxoon na ne saxaaba yi ñooy seen baay ci diine ñaareel bi mooy boo moom jataay bul bul def ni ngay tooge ci yeneen jataay yi ni ngay waxee bul waxee noonu soo dee wax na ngay wàcc sa kàddu comme na nga xamee ne noonu la digaloon saxaaba yi ne leen laa tarfahu aswaatakum fawqa sawti nabi bu leen yëkkati seen kàddu mukk ci kaw kàddu yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam soo toogee ci biir jataayu sëriñ bi bul wax mukk lu dul mu jox la ndigal lu nga wax wala lu dul aajo joo xam ne daa war nga wax waaye léegi jamono léegi jii moom daanaka yu mel nii yu baree bari adab yi dafa manqué lool ci diggante taalibe yi ak sëriñ si daanaka turux yépp wala yu ci baree bare bari yu mel nii jàngoro ju mel nii dal na leen rawatina ci muridisme gi war nañ koo jàngataat baax a baax ñun taalibe yi ñu laa biirawaat suñu bii suñu bopp ci teggin yi nga xam ne noonu la ñuy àndee ak sunu sëriñ bu ñu bëggee jariñ ci moom ñaareelu teggin bi mooy boo bokkee moom ab jataay li gën mooy ñu toogee na nga xam ne noonu la saxaaba yi doon toogee ak bi sallallahu alayhi wa mooy bu yonent bi toogee ñoom ñëpp dañuy sàppe ne ko jàkk comme ni ñuy sàppee bu ñu jullee noonu la ñuy toogee naka noonu noonu la sëriñ bi doon dafay jataay ak mag ña ca njaareem bu masaa toog ñoom ñëpp dañuy sàppewu jàkkaarlook ñoom waaye nag jataay léegi sëñ bi bu toogee da nga ko ñuuxu yor sa téléphone bëgg am ab vidéo ak moom sëñ bi may ma benn dóor fii foto yu mel noonu bokkut ci ay teggiin ci taalibe ak murit mooy di ñooxu sëriñ bi di sinaab su may joxe loxo nga su ma ko sujjootalee nga foto ma vidéo ma nangam nangam yooyu yëpp day xañee ak jariñu sa digganteeg taalibe bi nga sëriñ bi nga xam ne moom nga su moom nga jox sa bopp mu dox sa digganteeg yàlla boo toogee ak moom it bul jékki-jékki ne ko jàkk di ko xool boroom xam-xam it tasawuf nee na jàkk gu yàgg ki ngay def sëñ bi day dindi kersa sa digganteeg moom te kersa su amee sa digganteeg moom rek doo jariñu kon na nga am kersa sa moom sa digganteeg moom boo xool deel damm sab gis lu bare bare bare bare bare saxaaba yi noonu la meloon am na ku ñaan naan Omar ibnul Aas ñëpp xam nañ ne dundoon na ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam Omar ibnul Aas sama sama sama bët yii musuma koo teg ci xar kanam yonent bi sallallahu alayhi wasallam te moom moom ñoo bokkoon di dund nee na saa yu ma yëkkatee sama xar kanam bi rek bëgg a xool kanamu yonent bi sallallahu alayhi wasallam rongoñ yu bari mooy tuuru ba ma sëggaat du ma ko mën a xool loolu kasaalika it murid bi noonu la war a doxale digganteem ak sëriñam am kersak di ko xool kon saa yoo toogee moom na nga toog toogin wu wegu su mun ta ñàkk ba mun ta ñàkk na nga toog moom ci suuf bu dee nag ay jataay lay xaj na yoo xam ne nii mun ta ñàkk wala jataay bee ko laaj soo toogee na nga toog toogin wu yaru woo xam ne ku dikk dana xam ne kee mooy sëñ bi kee mooy taalibe bi waaye fi ne jataay léegi boo dikkee doo xam ne kuy sëñ bi kuy taalibe ndax nañuy tooge te loolu xamee su ko woon ci yoonu murit beneen bi ci toppaat mooy ci aadaab bi nga xam ne taamu nañ ko ci diggante murit bi akub sëriñam muy maanaam mu di ko xidmaal mu di ko xidmaal moo xam da koo sori wala da koo jege bu fekkee da koo sori nekk ci jataay bu euh, dëkk bu sori bu fekkee gis na kuréel goo xam ne ci kër gam bokk dañoo dajaloo yorub daayira na bokk foofu ndax lu baax dong la su fekkee daa ñëw ci jataayu sëriñ bi siyaare si ko kasaalika it nay jéem ca jataay ba lu mu gàtt gàtt mu xidmaal ko doxal koy yónneen xidma bu mu gis sa kër ga lu mu tuut tuut na bokk ca ña nga xam ne da koy xidmaal ndax loolu dafa bokk ci li nga xam ne da koy jariñ na bari it lu mu koy siyaare ndax siyaare gi day am lu muy beesalaat ci xolom daa am lu muy dundalaat ci ruwaam bu muy raar sëriñ bi wala mu di ko daw na ko bari lu mu koy siyaare lu baree baree baree bari waaye it nay bari lu muy indi ay hadaaya ci moom kem lu man te bu mu koy def ngir sal wala ngir bëgg gis gis leen ma ndax addiye jooju muy joxe ak siyaare yooyu muy def day ënd day yokku cofeelam ci sëriñ bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na day leen joxante addiya ndax addiya day taxa indi cofeel seen diggante ca addiya jooju ngay jox sëriñ bi addiya jooju ngay jox sëriñ bi mën na laa jural loo xam ne nii laneen lu dul addiye mënu la koo jural xam ngeen ne Seydina Ousmane am na ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam loo xam ne addiye moo ko ko may Seydina Ousmane bi yonent bi sallallahu alayhi taxawee di ko ñaanal ginnaaw ju liggéey ba fajar naan allahuma irda an Ousmane fa inni radina anhu yow yàlla yàlla nga gërëm Ousmane man day gërëm naa ko la ko waraloon mooy addi ju takk joo xam ne Seydina Ousmane joxe woon na ko ca xaswatu Tabuk ndax yonent bi sallallahu ca jamono joojo dañoo boo xam ne soxla woon na lool ab yóbbal boo xam ne nii ci xare boobu la waroon a dem ba mu def déclaration ne man jahasa jaysul usra falahul janna képp koo xam ne nii jaysi bii war a dem andi nga ci loo joxe na nga xam ne àjjana mi ngi lay xaar Aboubacar bi nga xam ne lu yàlla lu yonent bi mas a wax ak yàlla moo ci njëkk a wuyu keroog daa andi alalam jëpp bi koy yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne koy maasa ab xayta li ahlika ya aba bakrin waaw loo bàyyi sa kër yow Aboubacar dane allahu wa yàllaa ko bi yonenteem rek laa fa bàyyi omar bi mu ñëwee dana ko maasa ab xayta li ahlika yaa omar dana bi nisfi ma ataytu lu toll lii ma indi laa fa bàyyi waaye bi Ousmane indee addiye ji indi loo xam ne doy na leen yóbbal ca xare boobu yonent bi sallallahu alayhi dafa daal di jug daan ne Ousmane tey yàlla mbaa yàlla na ko mënatu ta def lu ko yàlla yi wax nañ ne bis booba wala guddi googa da koo fanaanee ñaanal ba bët set moom la sëriñ bi naan baatan nabiyu ila fajrin yarumu lahu ridan min allahi saa tafdilu ku baaru kon dañuy taamu ci murit bi it muy joxe addiya loolu lu baax la ci murit bi sëriñ bi mas naa daa daana wax ci ay addiya yu bari ñu fa daa andi addiya mu leen seere lu mel noonu kon day baax ki nga xam ne daa jokk ci kër ne ci kër ca kër yëpp sëriñ bi lañ jëmaat mu xam ne fi mu jokk muy bàyyi xel lu jëm ci wàllu addiya luñ joxe ci aw luñ laaj ci aw sas mu matale sas woowu luñ laaj ci ay hadiya ci biir tariqa bi muy joxe lu mel noonu loolu yi dafa doon loo xam ne nii lu am solo la loo xam ne daa am lu muy def ci sëriñ waaye it bokk na ci aadaab yi it muy ngay sàkku ci moom ñaan lu bari ngay sàkku ci sëriñ bi it lépp looy dugg nga ciy sàkku ñaan moom ndax ñaanam lu baax la ci euh, lu baax la ci taalibe bi nga xam ne day sàkku ñaan sëriñ bi muy di sàkku ñaanu sëriñ bi foo toll ca di ko doyloo ak ñaanam te booy ñaan li ci gën mooy bul bàyyi xel lu jëm ci wàllu àdduna sag ñaan comme li xew tey waaw man de sëñ bi damaa bëgg nga taal ma damaa bëgg nga def ma ci milliardaire sëriñ bi yu mel noonu ba jërul sax murit bi di ko di di ko maanaam di orienté sëriñ bi ci li mu koy ñaanal na ko bàyyee boppam sëriñ bi nga xam ne xam na lan mooy say ayib xam na fi nga jëm te am na lu gën a kawe loolu te loolu moo leen boole yéen ñaar li leen boole mooy mu taal la du raaya bi mu def la milliardaire ridwaan minallaahi mooy nga am ngërëmal yàlla ci sóobu gi nga sóobu ànd kook moom loolu mooy raaya bi kon nga di ko bàyyee sa bopp ak moom di tàllal say loxo di ko ñaanloo mu di la ñaanal noonu la mag ñi daa def xamuñu fenn ci histoire wala ñu dégg fenn ci mag ñi àndoon ak sëriñ bi ñoo xam ne daanañ ñaanloo sëriñ bi lu mel nii xamuñu ko fenn ci ñi nga xam ne daanañ ànd ak sëriñ bi di ñaanloo seeni sëriñ ci lii xew tey ci jamonoy tey jii kon day baaxit moom nga bàyyee ko sa bopp euh, mu ñaanal la loolu it lu am solo la ci diggante taalib bi nga xam ne dafa sóobu ci digganteem ak sëriñ kon loolu ay aadaab yu bari la yoo xam ne dañ koy sàkku ci murid bi digganteem ak sëriñ waaye ngir njëkkat ne nag waxtu wi rek dañuy ñëw ci ñaareelu xaaj bi mooy diggante murid bi ak mbokkum muritam aadaab yi nga xam ne moom la laaj ñaareelu xaaj boobu mooy diggante murid bi ak mbokki muritam te loolu muridisme da cee ràññeeku ràññeeku goo xam ne nii ci ay aadaab yu am seen diggante seen biir ci yoo xam ne nii xamee sut ci histoire teggin yu mel noonu ci murid yi euh, teggin yu mel noonu ñu meloo ko xamee sut ñu mel noonu ñu ànd noonu aadab yooyu bokk na ci mooy muy ngay toroxlu sa diggante sa moroomu taalibe yi te loolu loolu lañ xam ci diggante jiil bi nga xam ne ñu àndoon ak sëriñ bi waaye bëggante seen biir wax nañ ne bëggante gi ak yéenante jàmm gi ci ñi nga xam ne ñoo àndoon ak sëriñ bi loolu mënees na ci indi ay misaal yu baree baree bari niñ doon tuddantee doom niñ doon nganelantee niñ doon bayante ay tooli àllarba yooyu yu am solo la yoo xam ne kër goo dugg ci kër yi seex yu baree baree baree bari da nga ko fekk ay tur yoo xam ne nii yeneen i tur la ci seex si nga xam ne ñoom ñoo bokkoon ci biir toolu murit bi di liggéeyal sëriñ Tuubaa kon loolu dañ koy taamu ci sëriñ ci diggante taalibe bi muy murit bi digganteem ak muritam muy ñu bëggante ñu yéenante jàmm waaye ñuy laabirante ñuy laabirante waaye ak toroxlu seen biir kenn ci ñoom bañ di wane ak rëy rëylu ku yàlla dénk mu am ay diplôme yu kawe am moroom mu itam bu mu ko wan lu mel noonu ku yàlla dénk mu am alal ju bari bu mu wane lu mel noonu ku yàlla dénk it mu am at yu bari lu mel noonu bu mu koy wane kon toroxlu gi ak wàcc sa bopp gi loolu boo dee xool sax ñun ci suñuy musalahaat terme yi nga xam ne ci la ñuy wax ñun muridisme yooyu naka jekk cosaan la ci yoonu murid fasal fasaale ma loolu baat la boo xam ne nii sa morom murid nga ne ko fasaale ma booy ñaan nag ma fasaale sama sëriñ nga xam ne yow waxoo sa sëriñ waaye sa moromu murid bi nga naan sama sëriñ baat yu bëree baree bëri yi ngay dégg léegi ci jamono loolu ñi nga xam ne ñooy murid démb yi wala jiil bi nga xam ne woon nañ ci yarub sëñ Tuubaa bi yu mel noonu xamoon nañ ci ñoom baat yu mel nii yu mel nii dañuy baax lool ñu jàngataat ko taalibe yi di mel lu mel noonu seen biir waaye di nangoon am na lum la yoreel ci teewaay ci xew-xew ci lu man di doon bu la joxee ngantam bu ko mere ca loola mooy di nangu leen ci ay ngant loolu it lu baax la suñ biir suñ waaye di yéwénal diggante yi lu rafet suñ biir ñun murid ñun suñ biir ñun murid yi ci ñëpp la baax sax waaye rawatina murid yi waaye li nga xam ne kenn ku ci nekk gënal la sa bopp moom la ñuy wax isaar saxaaba yi noonu lañ meloon mooy kenn ku ci nekk wa yusiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa buñ daa joxe waa ansaar boo xamee ne dañ daa joxe seeni soxna yor ñaari soxna war a joxe kenn ka yonente bi mbokkale diw ak diw danaa ko xoolal ci ñoom ñaar ki la ci gënal ma jël ka ca des noonu lañ doon doxee murit gi noonu lañ war a doxee sa moroomu murit dalaa war a gënal sa bopp waroo wax baat bi nga xam ne wolof yi dañ koy wax lu bari naan ko sama bopp ma la gënal du bañ naa la loolu wax bu yàqu la waaye dalaa war a gënal sa bopp ci lépp nag xeeti teggin yooyu lu baax la ci suñu diggante waaye di ko défendre moo xam dafa tooñ wala ñu tooñ ci ni nga koy défendre bu tooñee mooy nga xamal ko ne ko yow yaa tooñ waaye lii mooy dëgg gi nii nga war a jaare su xamee ne daa dañ koo tooñ nga taxaw ci wetam jàppale ko ba mu am dëgg lii moo it ay teggin la yoo xam ne nii lu am solo la ci suñ diggante diggante taalibe yi kasaalika it di nangulante ay addiya ni nga xamee ne noonu lañ koy joxee ci sëriñ si maanaam di mayante di joxelante di jokkalante ay addiya di jokkalante ay siyaare di jokkalante ay kàddu yu rafet ay xasaayit lu mel ni ay ay ay ay xasaayit di bind euh, lu mel noonu lu yàgg la ci muridisme gi maanaam di bindante ay woy wala ay rasaa wala yu demee noonu loolu lu ñu xamoon la ci cosaan ci yoonu murid yi ci biir kër yi ñuy defante lu mel noonu bu nit masaa ñëw gane si kër danañ xool kenn ca gone yi nga xam ne dañoo jàng ñu def loo ko xasida lu mel noonu nga xam ne dafay des mbind moomu ñeneen ñi ñëwaat xam ne lii fii la jaaroon nii la demee woon yu mel noonu ay teggin la yoo xam ne day dundal taalibe gi waaye day dundal it cofeel gi nga xam ne dafa am ci diggante taalibe yi ci seen biir ci tënk yi teggin yi nga xam ne da ngaa ki nga xam ne da ngaa ànd ak moom ci yoonu yàlla waaye bokku leen tariixa bu ngeen sóobu waaye ay mbokki jullit ngeen moo xam askanoo na ci tariixa wala askanoowul ci tariix kooku yi dafa am ay teggin yoo xam ne danga nga koo war a sàmmante sa digganteek moom loolu bokk na ci mooy nga jiital sa digganteeg képp ku di jullit xam ne sa mbokkum jullit la waaye teg sa kanam aayab alquran bi nga xam ne yàlla moo waxoon ne innamal muminuuna ixwatun mboolem ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla yëpp ay mbokk lañ nga teg sa kanamit it waxi sëriñ bi fala tuaadu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illa allaahu képp koo xam ne gis nga ci biir gémmiñam muy génne baatub laa ilaha illa allah nga bañ koo noonoo yow murit bi ñi nga bokkal murit gi boo rafetalee ak ñoom sa diggante ñoom sàmmonte ak ñoom teggin yi ñi nga bokkal diine ji nga mel ak ñoom nii fexe ba saw làmmiñ ñu mucc ci waaye mucc mucc ci sab lox comme ni ko yonent bi sallallahu waxoon ne dëgg dëgg jullit mooy ki nga xam ne mucc nañ ci aw làmmiñam waaye mucc nañu ci aw loxo ay loxoom loolu la sëriñ bi doon jàngalee noonu la sëriñ bi jàngaloon murid yi fi nekkoon mooy liñ doon bëgg-bëgg sëriñ bi ak liñ doon tegginoo ak aadaab yi ñu wax seen diggante sëriñ bi ak liñ doon làmboo ak teggin yi nga xam ne seen diggante ak taalibe yi téewutoon xajoo woon nañ ñëpp bul jàpp ne li nga nekk rek moo baax lu keneen nekk baaxut loolu day yàq waaye it bul xeebal kenn la mu nekk wala nga di ko xeebal ab sëriñam wala nga di ko xeebal ab yoo aw yoonam na ko bëgg li nga bëggal sa bopp ci texe ci lu baax nga bëggal ko sa mbokkum jullit mi nga xam ne yéen a bokk diine ji noonu la sëriñ bi doon jàngalee sëriñ bi day loolu la woote woon loolu la yaroon mag ñi taxaababu fillahi sil jalaali bila tanazuin wala idlaali na ngeen bëggante bëggante goo xam ne yàlla rek mooy tax te bu leen di xëccoo bu leen di ŋaayoo bu leen di bañante bu leen di noonoo man amanu wa aslamu wa ahsanu ahibati fi xayri rabbi yuxsinu ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla te soobu ci yoonu lislaam ñooñ ñooy samay soppee kon murit bi nga xam ne daa wutub àndaale akub sëriñam na xam ne àndaale googu bu mu xatal ci lim nekk waaye na xajoo képp koo xam ne ab jullit la rek na xajoo ak moom ca làmboo teggin yi nga xam ne moom lañ wax ci digganteem ak sëriñam digganteem ak taalibe yi loolu day tax loolu day tax maanaam ak cofeelam ak cofeelam ak cofeel ci digganteem ak sëriñam wala day tax day présenté sëriñam ci présentation boo xam ne day tax ñëpp dañ koy xajoo ñëpp dañ koy bëgg waaye xajoo woo kenn foo toog ci jotaay di nettali yoo xam ne nii maanaam day tax da ngay wutal ay noon sab sëriñ loolu bokk ci teggin yoo xam ne nii tegginu taalibe la noonu la war a àndi ak sëriñam ñu di ko bàyyi xel bu baax a baax a baax yi ay teggin la yoo xam ne nii euh, day mel ne teggin yu yaato yaatu la waxoon naa ci tàmbali bi ne yu yaatu la waaye dañ ciy tudd yi nga xam ne moo gën a fës muy nii ñu ko xaajee ci waxtaan wi muy teggin yi nga xam ne moo am ci diggante taalibe bi ak muri ak ak ak muy teggin yoo xam ne wax nañ léegi ne mën nañ cee lim lu ëpp juróom fukki teggin yoo xam ne bind nañ ko yaxal ko ñu tudd ci yii rek ak teggin yi nga xam ne murit bi moom la war a tegginoo ci digganteem ak mbokki muritam yi ak ci digganteem ak mbokki taalibe mi ndax day mel ne ñii ñëpp nag ñu tudd muy jullit bi taalibe bi sëriñ bi mbokkum jullitam bi ñii ñëpp ay àndaale lañ ay àndaale lañ yoo xam ne yéen ñëpp yéen a bokk di wuti yàlla àndaale boobu nag bu fekkee ne yàlla rek moo tax bu boobaa mujj ga la ñu waxoon ca wasiya ba rek moo cay tegu mooy alhamdulilahi rek moo tegu ni ko sëriñ bi waxee woon ngeen bokk di wut yàlla di naanoo na ngeen xam ne wut googu ngeen wut yàlla am na lu ca rax taalibe bi noonoo ko sëriñam di def ay déclaration di attaqué sëriñ ngir am lu mu leen jàppal na xam ne wut googu muy wut yàlla am na lu ca yàlla rek yàlla rek taxut waaye bu yàlla rek taxee alhamdulilahi mooy mujj ci ànd boobu ci àdduna ak ci àllaaxira waaye saa yu demee ba ab xëccoo wala ay kàddu yu ñaaw di ca am nañ xam ne ànd booba am na lu ca loo xam ne nii bokku ca mbokk yi day mel ne ñi ngi ñuy soññ ci waxtu wi muy mel ne lii lañ waajaloon ci waxtaan wi waaye ci tënk rek niñ ko waxee ci tàmbali bi sëñ Mor Penda nga xam ne wax nañ ne ku defaru la woon te sëriñ bi daana wax ne Mor sant naa yàlla ci moom mu bokkoon ci ñu njëkkoon a wuyu si wooteef sëriñ bi ba ni fi sëriñ bi làqoo mu rafetal ak moom ba ni fi jógee ba moom it ni mu wuyjee boromam doy na sëkk ci exemple nan la am murit di mel ci digganteem akub sëriñam melo yooyu nga xam ne moom la meloon am nañu exemple boo xam ne bu ñu jege la noonu ñu ko waxee sëñ Mor Penda noonu lañ ko mën a waxee it ci mag ñi nga xam ne ñoo àndoon ak Seexul Xadim radiyallahu taala anhu noo ngi jégaluwaat bu baax a baax a baax a baax day mel ne euh, li ñu waajaloon ëppoon na lii waaye ñu ngi soññ bu yàgg ba tey te timis ci jege na ñoo ngi jégalu mbokk yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullah yaakaar naa ne sëñ Munta sëñ Muntala ni nga ko waxee waxtaan wi am na solo lool yal nañu yàlla defal dégg ak topp euh, kon yaakaar naa du jar rek ñu ci jaaraat ndax yu fi leer na yàlla na yàlla defal tawfiq ñu ngi lay nuyu baax di la xanaa ñu lim rek lenn ci waa yi nga xam ne ñoo ànd ak sëñ Ahmadul Badawi Mbàkke mu Cheikh Mouhamadul Fadil di kilifa ak rawdu euh, ñi ànd ak moom sëriñ Mbàkke Abdourahman sëriñ Cheikhuna Mbàkke Abdoul Wadoud sëriñ Mourtada Silla ak docteur sëriñ Samb Bousso Abdourahmane inspecteur sëriñ Cheikh Mbacke Kane sëriñ Cheikh Mbacke Ñang sëriñ Mame Balla Mokhtar sëriñ Mbacke Sam sëriñ Cheikhouna Bousso Cumbuleen ak docteur sëriñ Abdoul Ahad Lo sëriñ Fallou Ñang alxaaji sëriñ Abou Bousso sëriñ maam Imam Ñang sëriñ Mor Bousso sëriñ xaadim Bousso Bachir sëriñ Murtada Mbàkke mu sëriñ Njoogu inspecteur sëriñ Mouhamad Ndiaye sëriñ Mor Ndoom sëriñ Mor Kan sëriñ Basiru Jatara sëriñ Abibu Sàll sëriñ Amidun Lo sëriñ Chouaïbou Lo sëriñ Daouda Diouf sëriñ Murtada Lo sëriñ Mbàkke Diop Xudar sëriñ Cheikh Mokhtar Lo sëriñ Ibrahima Gueye sëriñ maam Thierno Mbacke sëriñ naa jaxate sëriñ Abdoul si Sy naa Thiam sëriñ sëriñ Gallo mbay sëriñ Moustapha Guèye sëriñ Omar Diop soxna maam Awa Dem soxna Safiyetu Guèye soxna maam Assa Ndiouk soxna maam Diarra Sarr soxna Nafissatou Lo ak ñeneen ñi nga xam ne gisuma leen kon ñii ñëpp ñëw nañ kon ñu ngi leen nuyu baax di leen ziyaara di leen ndokkeel waaleykum salaam wa rahmatullahi wa eh, waxtaan wi am na solo lool des ci def benn commentaire ndax loolu mbaar ci kër lay doon yal yàlla guddal fan wi te wéral cër yi te bàyyal ak sam xel te nga doon magum lislaam te doon ku ànd ak sam te sab liggéey suñu boroom nangu loo ko sëriñ bi gërëmal la ko ñu bokk ñun ñëpp kon xam naa dañuy jël kàddu gi jox ko sëriñ Basiiru Mbàkke moom sëriñ Moodu Faana su ko defee sëriñ Basiiru moom mu ñëw wax ci kàddu mbokk yi maanaam turub turutu kër gi daal sëñ Basiiru kon moom la ñuy xaar bisimilah mu ñëw jël kàddu gi waaye bala muy yegsi rek ma poroxlu délégation waa kër sëriñ délégation waa kër sëriñ Cheikh teew nañu fi ci njiital sëñ Fall Mbakke sëñ Cheikh Seynabou délégation waa kër sëriñ Mbakke Saloum teew nañ fi njabootug sëriñ Mor Asta teew na fi njabootug sëriñ Ibrahima Fari teew na fi njabootug sëriñ Sidi Mbacke Abdourahman Darou teew na fi njabootu sëriñ Abdoulahi Abdoul Khoudous Mbacke Kajoor teew nañ fi kon sëñ Bachirou xool nañ ma xool sëriñ Abdou Sadio teew na fi délégation ko Serigne Mor Asta teew nañ fi njabootuk Serigne Modou Cheikh Sala teew na fi njabootuk Serigne Moustapha Ndiaté teew nañ fi njabootuk sëriñ Abdourahmane Ndiogu teew nañ fi Serigne Alhaji Boussa Niang teew na fi njabootuk Serigne Cheikh Mame Balla teew na fi njabootuk Serigne Mame Mor Mbacké teew nañ fi Serigne Fallou Cheikh Seynabou teew na fi délégation Serigne Mbacke Saloum iital Serigne Thierno ak teew nañ fi tey Taysir wa Asir Serigne seex Touré jiite ko ci suba ba léegi ñu ngi fi di yor wàllu liggéey bi ak a toppatoo barab bi teew nañ fi daayira Ahiba Isel Khadim njiital Serigne Cheikh Fall Mademba teew na fi daayira soppay Serigne Fallu ci njiital maam Serigne Sidina mbay teew nañ fi ñoom itam ci suba ba léegi ñi nga ànd ak ñoom ci béréb bi ñu setal ko defaraat ko organiser ko ba mu mel ni mu mel. di ay ndaw yu sawar ci liggéey bi suñ boroom yàlla leen taxaw te fay leen sëriñ Basiru si Daaru Salaam Bambuk teew na fi naka noonu sëriñ Basiru sëriñ Fallu Asta Jeey teew na fi naka noonu it soxna maam Penda Mbàkke bintu sëriñ Mudu Moor teew na fi soxna Maryamu Mbàkke bintu sëriñ Mudu Moor teew na fi soxna Muslimatu Mbàkke bintu sëriñ Mudu Moor soxna Xadijatu Mbàkke bintu sëriñ Mudu Moor ñoom ñëpp teew nañ fi soxna Zeynabu mbàkkee bintu sëriñ Daam Sala teew na fi soxna Aminata mbakke moom sëriñ Bassirou Mbàkke ci njiital ay bàyyi seel xaddiim ak soxna Fat Thiam Gueye teew nañ fi soxna maam Fatimatu Mbàkke bintu sëriñ Abdul del bi teew na fi kër sëñ Modou Fadiama ñang kër ñang ñoom ñëpp teew nañ fi ñu ngi ne suñu ginnaaw soxna Muminatu Mbàkke bintu sëriñ Abdul del bi teew na fi soxna Xasan Mbàkke bintu sëriñ Abdul del bi teew na fi soxna Muslimatu Mbàkke bintu sëriñ Daam Dala soxna Xawa Maama Awasi moom Serigne Baara Mbacke Mbampana soxna Adama Mbacke bintu Serigne Baara Mbacke Mbampana soxna Ndeye Khady Silla bintu Cheikh Amadou Fadal soxna maam Astu Mbacke maam as mbakke Issa Mbacke ahlul café ci bëccëg ba léegi ñu ngi fii li ñu fiy naan ci kafe ñoo ko tàngal jaayante lépp seenub liggéey teew nañ fi ba ñu ñu koy joxe mbooloo mi teew nañ fi loolu mooy liste bi nga xam ne jotoon naa egg fi ñun. incha allahu bi dafa mel ni timis ji nag dafa xaw a koccal waxtu wi te xam naa bu sëriñ bi tàmbalee du fi xaj waaye ñu xam ne daal jataay bi yeewi koogun dañuy jooxe waxtu wi suñu jooxee waxtu wi nag delluwaat yëggale li des ci liggéey bi loolu mooy ndigal li fa tabaarakallah waxtaan wi fi jàll dégg ngeen ko ni mu amee solo waaw kay sëñ Baba Ndiaye ñu ne nga ñëw noddal ma waaw bu noddee ñu joxe waxtu wi rek. aw njabootu sëriñ Mbakke Abdourahman soxna Asta Waalo sayxi ma mar penda na li ahmada فإنني عرفت حقيقة معرفة كنت له صديقا فهو سيخ ور جواد loo wufuudun walloo jawaadu rabaaw sayxi ahmadul bakiyu radiya anullahu walmakiyu Rabbi sëñ moom dafa bokk ci ñi nga xam ni ci yoonu murit bi dafa bokk ci mag ñi nga xam ne bi muy ànd ak sëñ bi boobu yoonu murit taxawagul te loolu yaakaar naa bëriwul muy jëmm joo xam ne it ku am ndimbal la ci sëriñ bi ak njabootam wane na ko njabootam gi ñu taxawoon ak njabootub sëriñ bi lañ tey ñoom ñëpp doonoon ay murit doonoon ay boroomi xam-xam. ab jullit la woon ab jaamu bu yàlla la woon jaamu bu yàlla bu bàyyi ko ci ñaari jaamu yàlla yu tedd waa juróom bu jigéen mi ngi tudd soxna Penda Ka bokk ci njabootu Kànk waaye juróom bu góor tudd maam Daam Seynabu bokk ci njabootu maam Mahram mu feeñe Saalum ca jamonoy Maba Jaxu Ba ci atum 1864 ñii ne 1865 ca xare boobu yi nga xam ne maam Maba woote woon na ko te àndañ ko woon àndante woon kooku sunu mag yu baax ya ridwanullahi alayhim te sunu maam ju tedd ja sëñ Mamour Anta Sëli demoon ca sunu maam yi Mbàkke yi fi nekkoon demoon ca sëñ Daam Seynabu mi nga xam ne mooy waajuru sëñ Mor Penda da caa bokkoon ca biir biir jotaay yooyee nag ca jamono yooya ca sunu sunu maam ju tedd ji ca la gane àddina kër gii kër sëñ Tuubaa la sëñ Tuubaa dafa noonu day day ñëw mbamp ni gi dafay wut kër sant ko sëñ Mor Penda bi mu ko santee sëñ Mor Penda te fekk sëñ Mor Penda nga fële bàyyi Cheikh ni ko fii gën a jege nit ñi dañ ko def fii fii suñ tool bàyyi Cheikh woon mu jox ko mu jox ko ko mu def fi kër sëñ Tuubaa yàlla dogal nag loola xañ na sunu boroom dogalu ko ba sëñ bi far lim boobu ba am na yu ci ba ñuy delloo bagage yi am na bagage yu ñu fi bàyyi ñu fi ak lal bu ñu fi bàyyi woon boo xam ne bii mhm. daa waxoon señ Mor Penda ne ko ñu barkeeloo ko ngeen mhm. yaakaar naa ne lal boobu mi ngi fi bi mu xamee ne mun fii ñëw mu woo sëñ Mor ba mu ñëw mu ne ko damaa bëgg mbàmpan ni ma fuutal kër kër gi fii la ko defoon mu juróom yaari kees bëri na yére yu ñu Jolof yoo xam ne dañ wax na dañ ko yóbbul ci këram nga ca mbàmpana mhm. am na jeexi ju fi yoo xam ne ca loolu la juróom-ñaari néeg yooyee néeg bu ne sëriñ bi indi na fay lal ak i bagaas bi mu demee nag ba xam ne moom jóg yombatu ko ndax mënut a jóg te tubaab yooyu la woo sëñ Mor Penda ba mu ñëw mu ne ko bagaas sàngam mag bagaas sàngam yaakaar naa loolu ma ko la ca lépp nga barkeeloo ko juróom-ñaari lal yi am na bu ci des ci néeg bii la nekk ma nga fa lal boobu wax na sañ Mourou Mamoun moo ko jëndoon jot ko sëriñ bi addiyee ca jaari mu ne ko nag moo ko yóbbal ci sama kër gi ca ndàmp na. sëñ Mor moom boo koy wax da nga naan sëñ Mor mooy yoon wi koo xam ne sëñ bi kenn raxu ko ci yow moo la matal sa alxuraan jàngalal la boppam xam-xam yaral la boppam bëriwul ak kenn ba sëñ bi am jot mën a defar nit booba la ko jàpp defar ko ba mel ni mu bëgg. bi ñuy tàggoo fii ci tàggoo bu mujj bi sax ci njaareem de fir sëñ bi firndeel na ko ci waxu euh, sëñ Mbàkke Siise ak sa bàyyi dam dala ci waxtaan booba xale la waaye du ma fàtte maa ngi toog mu ne ko moor naa na noona li ma gis sa bopp bàcc ba jaaw la mu ne ko ah, mbàkke koor mu naa mu ne ko yow yow rek laa ma sa yor la neel baa dara mënoo dara xamoo dara ba tey jii ba nga am kooroor saa xamal ne li mu soo tooñ yàlla fi nga toog neel man ci moom ci moom loolu moo ci moo penn la ko jikka wax jëlu ko mujj wax bi sëriñ bi soppee liggéey bi jëme ko ci woote ki yar ci himma ak tarbiye nit ñi sëriñ Mor Penda ñoo njëkk a jaayante ak sëriñ bi ca la bokk mag nettali na ma ku ñuy wax sëriñ Kamaan Mbàkke wax ma ne jële na ci waxtaan woo xam ne sëriñ daam dala moom sëñ Mor Penda ak sëñ Omar mi nga xam ne jëwriñ la ci sëñ Mor Penda radiyallahu anhum seen waxtaan nee na jële na ci ñu wax ne sëriñ Mor keroog bi nga xam ne sëriñ baa ngi woote yoon wi dafa woo sëñ moor ba mu ñëw mu ne ko de lii lii lii nga xam ne tey moo fi dikk di ndigalu suñ borom yow dangaa bokk ci biir won ko ne ko yow maa lay wax li nga xam ni moom ngay wax ba noppi yi nangul la ko nga xam ni wax nañ ni baati ngébbal yi nga xam ne sëriñ Mor Penda radiyallaahu anhu jébbal noonu sëriñ Tuubaa sëriñ bi ci boppam moo ko sa baat ba noppi wëlbati ko ba ko say ba ko ba noppi sëriñ bi nangul ko ko nga xam ni kon xaaj bi nga xam ne sëriñ bi da leen doon jàngal sëriñ Mor ke la bokk. xaaj bi nga xam ne it bi sëriñ bi joxee ndigal xaaj bu njëkk des ke daara ja jaayanteeg sëriñ bi it sëriñ Mor ca la bokk. sëñ bi da koo woo ba ñëw mu ne ko Mor Penda dégg nga ma wax wax ci kër gi mu ne ko waa ah Mbacke mu ne ko ana diw mu ne ko dem na mu ne ko ana diw mu ne dem na ñiy dem mu ne ko nun de loolu Mbacke yow yaa ñu jëlee Mbacke indi ñu fi yow dong lañuy ñuy mu ne ko Mor yow li ñuy woote maa lay woo maa lay wul maa lay wax ni ñu koy waxee <laughs> te mooy aslam si nafsi daal di koy wax li lii aslamtu si itam boo demee ci xasaay sëñ Tuubaa aslamtu nafsi yooyu yàlla am waladin da danga xam naka sëñ tu noonu ak ak njëlbeenam ni mu ni mu amoon ittee ni mu buure jëm ci yàlla kese kese kese kese boolewu ci daray àdduna boolewu ci daray nguur boolewu ci daray bopp wala doom wala dara. jamono yi nga xam ne sëñ moo a nekk ci kër sëñ bi ba mu fay jógee wax nañu ne la ñëw bi mu ñëwee. jël sëñ Mbàkke yóbbu ko ca kër sëñ ba wax sëñ bi ne ko kii dey moo mag ci kër maam Sàmba ji booba mu daat koy xamal ne ko dama bëgg nga ànd ak moom li ma des ci yow nga def ko ci moom mu ànd ak moom ñu ànd diir bi ñu ànd ba delloo ko ca fa ko joxoon naka la nga ma waxoon di def naa ko mm-hmm. loolu di dégg naa ko ci mag ñi nettali ko soxna Anta Sali Kan mi wayjuru Serigne Mamour Anta Sali fii tëdd soxna Ummi Mbàkke bintu Cheikh al Xadim muy Ummu Kalsum fii tëdd soxna Xadim Mbàkke bintu Cheikh Xadim ak Serigne Basiru Mbàkkeem Cheikh al ñaari wayjur fii la tëdd soxna Astu Mbàkke di doomi Serigne Basirum Cheikh Xadim fii la tëdd soxna Buso Mbàkke bokk ci sëti Serigne bi moom itam ak yeneeni doomi kilifa yi tedd yoo xamante ne bi ne ñu ngi tedd fii bokk na ca njabootu sëriñ Mbacke Bousso bokk na ca njabootu Serigne Abdou Dia Doyoly bokk na ca njabootu Serigne ay sa jenn ak bokk yu bare bare bare yoo xam ne ci mag yoon wi ci lañ bokk ñu ngi ci barab bu tedd bii ñu nekk. bi sëriñ bi nekkee ci géej gi ba siwaat ba ñibbi si njaareem ci la soxna ummi moom Seexul Xadim génn àdduna Serigne Touba woolu Serigne Mor Penda mu ñëw mu nekk Umu Kalsoom mi yóotal ma ko maamam ne ko diirub la ma nekk ci géej gi mi ngi may laaj wéttal moo di soxna Anta Sali Kan loolu yi moo tax ñu indi fi soxna Anta soxna Xadi moom sëñ Touba moom itam ak mag ñi nga xam ne ñu bare bari wàcc nañ liggéey Serigne bi nekk njaareem yable ne sëñ Mor na ma yóbbul ñii ca barab ba dencal ma leen fa. bi nga xamee ne yàlla def na ne njaareem soxna Oumy foofa la wàcceeb liggéey am naa nekkoon na fa sax. ndax am na xisa buñ ma euh, nettali woon ci mook soxna su gaan boobu moom mën naa xam ne rek nekkoon fa mook soxna su gaan waaye xisa ba sax jërul kii bi nga xamee ne yàlla def na soxna mi ñëw fa tawaat fa yàlla def mu wàcc liggéey mu war a suñ mor pend fii ne umul xëy daf may laaj wette rek mu yanta seen i kan nanga ma ko yóbbul foofee ci soxna seen i nga jógee na nga fi nga fi jógee guddi ba baa ngay àgg nag bu leer gi bu leer gi dog wax nañ ne làmpi fotofor la sëriñ Mor Penda yor ne ko it toppatoo ba lu sa waa kër bu leen ko toppatoo buñ ko buñ ko jege wax nañ ne booba barab bi lu mel ni ak déet dañoo ko wër semaine boobu sëriñ Mor dafaa yeble ñu àll euh, déet ga ba mu set defar ko ba mu leer ca semaine boobu la ko sëriñ bi woon ne ko yóbbu na fa soxna kon moom am na lu ko sëriñ bi wonoon. sëriñ Mor Penda moom nga xam ne dagg nañ baaraamam. te eh, eh, àddukal bi doog nañ ko ci ba dagg baaraamam mu moy ca ni addi ji ma fasoo jox sëñ Tuubaa kenn mënu ko nangu ci woon di xeex ak ñoom bañ dagg baaraamam te joxu leen bi zahiratan kama yusaydu ma tahtal akinaat xëy na ku mënoo matal ñëpp fa tabarakallah waaye ñëpp rek ñoo ci bokk bëgg-bëgg ak yëg-yëg kon suñu dellu si ak bi rek soxna yi ñu toog soo amee ak dal dañuy jox sëriñ Basiiru Mbakke euh, mu daal wax ci kàddu njaboot gi sëñ waa kër sëñ Mor Mor Anta njabootuk sëñ Mbakke Cissé fa tabarakallahu ànd nañoo ak ñun jotaay bi ci àndin bi gën rafet ñu ngi leen di dalal jàmm te di leen ñaanal jéego ñëw yi ak yu delli yépp di tuyaaba kon bismillah kilifa gi mën naa jege si fa ñu toogaate wàññi coow li léggéey bi daanaka day soog a door rek li gën a ëpp solo mi ngi ci kanam incha allahu rabbi kenn bañ yàkkamti kon ñu jox kàddu gi sëriñ Bassirou Mbacké bismillahi irrahmani irrahim wasalaatu wasalaam ala haadi al amin sayidina wa maulana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi sawi radwani wa tamkin ama baad mbokki jullit yi mbokki taalibe yi kilifa yu baax yi toog ñoo ngi yëkkati nuyóob lislaam jëme ci yéen te mooy assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñoo ngi sant yàlla bu baax di julli ci Moustapha sallallahu taala aleyhi wa sallam di sant seyxuna ahmadul xadim radiallahu taala anhu di yeesal sunu jaayante ci waxtu ne euh, mu mel ne bokk yi euh, li nga xam ne sas nañ nu ko te ñu néew ci doole lool lott ci lool di ci ñaan lool ndimbalul yàlla ak tawfeexi sëriñ bi mooy kàddu yi ñuy jox mu jëm ci turu bokk yi ak cant goo xam ne war nañ leen koo sant ak bokk yi sant gu ñu sant lool ci xew-xew bi ak ñi nga xam ne ñoo sonne ba jataay bi am ñoo ngi jël nuyoo bi tàmbalee ko ci hmm? ñoo ngi jël nuyoo bi tàmbalee ko ci kilifa gi nga xam ne mooy boroom liggéey bi di a Seex Muhammadul Muntaxa ñuy ñaan yàlla suñ borom subhaanahu mu sàmm ko dolli aw fanam ba mu gën a yàgg lool dolli ak wiram ba mu gën a wér céng lool may ko mu àggale it mébétam ak yéeneem yi mu yéene ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa ci toolub lislaam bi te lépp ñu àndante ko ak moom ba sémb yu réy yi mu sémb yépp mu àggale ko ci sago ak tal ak kàttan sémb yeneen ak yeneen yu ko gën a rëy fuuf ëpp ko njariñ te yooyu yëpp mu àggale ko te jiite ko lu yàgg di siyaar Cheikh Mouhamadul Badawi yu di ñaan yàlla moom it léggéey bii nga xam ne sëriñ bi sémb na ko àndante ko moom te dénk ko ko yàlla ko ci yàlla defal tawfeex mu am ci ndam lu kawe ba yaakaar yiñ ci yaakaar yépp ñu am ci lu kawe njort àndante kook ñu ko àndal ñépp ñoo ngi nuyu waa Rawdu Rayaan yi nga xam ne ci njiital sëñ Ahmadul Badawi ak sëriñ Mbàkke Abdourahman ak ñi ñu àndal ñépp te ñu liima leen fii di sant yàlla ci jataay bu rëy bii ñoo jaagale sunu kilifa gu baax gi di sa sëriñ Mor Penda loolu it yu kawe la ndax ku ne xam na ne amuleen jot te noppaluwu leen ndax li ñu leen sas dafa rëy te mooy yaatal xam-xam yaatal ndaw ñi yar leen jàngal leen ndono yi nga xam ne mooy seen ndono yu baax yi amoon ba noppi nag fexe ba garder ko ba nga xam ne du réer loolu ab liggéey la boo xam ne bu jafee-jafe la waaye def ngeen ci lu kawe njort bind ngeen ay téere fàttali ngeen ay mag tàmbalee ko ci mag ña ngeen tàmbaloon ba ci sëñ Mor pend mii nga xam ne moom la ñuy fàttaliku tey di ko jàngat dajale ngeen ay nit tasawuf ci àdduna bi fu ne ñu daje def ay conférence yu yaatu ñu def ko ci ay téere xereñi alxuraan ci ay mbind ak jàngale xereñi xasiday sëriñ bi ci bind ak yu jàngeen ak téere yi nga xam ne dafa jëm ci xam-xam ak gëstu bu yaatu bu xóot boo xam ne meññet moomu fa tabaarakallaahu bis bu ma bu lawee dana ñoon njariñ lu rëy rëy rëy muy ay liggéey yu rëy yàlla na leen ci yàlla taxawu ba ngeen ci yéene lépp suñu borom sottal ko gémmiñ bañ cee dugg benn gàllankoor bañ cee am ba li ngeen ci yéene lépp ngeen am ko ci barkeb Sëriñ Tuubaa noo ngi sant yàlla bu baax sëriñ bi di sant bokk yi sëriñ Mor Penda radiyallahu taala anhu dafa nekk nituk mbokk moo moo tax bu bu bu xewee jëm ci moom bokk yépp dootuñu am sago ci ñépp dañuy dëkk teew bu ma nee dafa nekk nituk mbokk lenn la ci misaal mën nañ cee jël misaal ku ne xam na ne mësta teqalikoo ak sëriñ bi ci lépp loo xam ne sëriñ baa ngi fi ci liggéey bi muy jiitu yoonu murit ca mbakk Kajoor ni ko bokk yi waxee te am na ñeneen ñoo xam ne dañ ci del ba gànnaar muy am fa ay màndarga yu ràññ ko waaye ku ne xam na ne sëriñ bi jagale woon na ko xayma boo xam ne xayma boobu daanaka bokk yee ko moomoon ku masaan ñëw ci waxtu woo xam ne mën a gisee ak sëriñ bi foofee lañ lay yebal ay bokki daana ñëw sëriñ bi yabal leen foofa ba bam leen di woolu nga xam ne noonu la masa doon te nitu bokk yi waaye loolu dafa jiitu sëriñ moor loolu da ko donn ndax ku ne xam na ne way juróom yu baax ya muy Masamba bu ak daam Seynabu ak sëriñ daam Seynabu bi nga xam ne moo ko meññi melokaan wu mel loolu la amoon ci Maam Mor Anta Sali mi nga xam ne moo doonoon kilifa ci jamono boobee te booba ay jaayante akuk taalu bi xewutoon waaye bokk gu ne daraan am ku doon kilifa bokk yi ñu nangu kilifteef gi lool jox ko seen lépp taqoog moom ci diirub mu fi nekk ba loolu moo royaat bi way juram demee mu teel a ñàkk way jur lool fekk muy jàng alquran mu ànd ak way juram wu jigéen dem fedd li loola ca sëriñ bi te booba yoonu murit juddoogul sëriñ bi xam sëriñ moor ni mu nangoo ak bokk ak ni mu nangoo kilifteef mu téye ko foofee ba woote yoonu murit fekk ko mu bokk ci nga xam ne ñoo ca jëkk dugg ba ca duggee it delluwaatut ba 1928 bi mu wuy ji boroomam radiyallahu taala mu doon loo xam ne lu am am solo la moo kon euh, sëriñ ahmadul badiyu bu àndee ak rawdu rayaan mi nga xam ne bokk na ci seenub liggéey mooy jàngale liggéeyub sëriñ bi ak yaatal ko ak weddi tuuma yi nga xam ne ñu ngi koy tuumaa liggéeyub sëriñ bi bu ñu tànnee sëriñ moor ne di koy dañ koy jàngale tey loolu liggéey bu rëy rëy la bu am solo boo xam ne xol yépp sedd nañ ci kon li nga xam ne mooy turu Rabdu ak sëriñ bi ak bokk yi ci cant gi loolu moom am na ko sëriñ bi délégué dana ñëw bu ñëwee dana ci àgg waaye dañ leen di sant nag en tant que mbokk comme dañ leen di yow mbokk ndax ñoom ñëpp ay bokki sëriñ Mor lañ tàmbalee ko ci borom liggéey bi muy Cheikh Mouhamadul Mountakha ba ci sëriñ Ahmadul Badawi muy jiite liggéey bi ak bokk yi fi daje yépp sëriñ bi nee na lii bi ñu ko tuddee ñi gën a jege sëriñ Moor te mooy ñi bokk ak moom wenn way jur ñu bokk maam daam Seynabu ak ñi nga xam ne ñoom la way way juram bokk ak ñoom ñu bokk ñu ñu ñu bokk Ahmadul Joosi ak ñi nga xam ne bokk yi boo ko gënee yaatal ñu daje ca maam Maharam nee na bokk yooyu yépp kenn maanduwul ci mbir mi kenn ku ne yëkkati nga sa alal ak sa yéene ak sa man-man bàyyi ko xel waaye li ci gën a neex mooy ku ci dégg na sëñ Moor dañ koo jagale ab bis wala ngont ci léegi ci màggalu Tuubaa day mel ne yow lañ ko jox nga am ci mbégte mu rëy lool ak xol bu sedd guy bokk yépp noonu lañ ci mel muy bokk yi nga xam ne ñoo bokk ci wàllu maam maharam ak yeneen bokk yi gën a sori yépp te loolu ñi ko génn bariwuñ te boo dikkee ci saal bii tey banqaas bu ne ci kër Mame Maharam moo xam ña ca jaar jëm ca ña sant sa ña sant ñang wala ña sant kax wala ña sant neneen ak neneen ak neneen yépp te banqaasoo ci tey mbooloo yooyu yëpp ñu ngi dajee ci saal bii alhamdulilahi rabbil alamin ndax day mel ne li ma fi ma fi ma tàmbalee woon mooy itte jure jooju nga xam ne sëñ Mor da ko jële woon ci ay waajuram ak i maamam ba noo nitu bokk yi bàyyi fi ay doom yoo xam ne dañ ko doon dundal tàmbalee ci sëriñ Mouhamadou moom sëriñ Moor radiyallahu taala anhu ba ci sëriñ Mouhamadul Amin mi fi mujj a jóge ak njaboot gu baax ji ko donn ca sëriñ naa ba ci sëriñ faddilu mi fi jóge bu bu yàggut ñuy ñaan yàlla dolli yërmande xéewal ak njëggal ci ñoom ñoom ñëpp ndono loolu lañ jël amuñu ci sago mësta dellu ginnaaw ba tey jii mu ñëw ci sëriñ Cheikh moor mii nga xam ne moo yore liggéey bi ñuy sàkku ci bokk yépp ñu ñaanalal nu ko yàlla moom it suñu borom sàmm ko te aar ko te may ko fan wu gudd lool ba mu tax ba mu am taxawaay bu kawe boo xam ne fu fu ñu yóbbu woon liggéey bi rek dana ko yóbbu fu ko kawe gën a kawe foo xam ne ñëpp dañ ci teg bët waaye bokk yi bu ñu leen tuddee danañ beral loxo ñi nga xam ne ñooy jigéen ñi noonu itam la jigéen ñi taxawee képp koo xam ne askanoo na ci maam maharam wala mu askanoo ci geneen bokk goo xam ne daa meññ ba agsi ci sëriñ moor ba mu déggee xew-xew boobu itte ju kawe jooju la am mooy ñoom ñëpp jàppe ko muy seen mbirum bopp jël seen alal ak seen kattan ak seen temps wëlbatikuwaat nag ñëw toog am dal gu mat sëkk lépp luñ fi yaf ñu taatan ko waaye noomi sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant bu baax ci seen taxawaay boobu ñi nga xam ne itam ñooy bokk yi te doon ndaw ñi sëriñ bi nee na mi ngi leen di beral loxo ndax nee na bu fekkoon ne mbir mii de bañ ko tuddee wax ko ko mag ña gën a magee topp ci moom bu fekkoon ne ñoom rek ñoo ko yor di ci las las yi yaakaaram dana ci néew lool waaye li ko gën a li gën a daw yaram mooy gone yi gën a ndaw ñi nga xam ne ay doomam lañ ñi nga xam ne ay sëtam lañ dafa mel ne ñoom bis bi ñoom dong ñoo ko moom di ay borom ñoo xam ne dañoo teeloo na dem jàng xam-xam ba am ci lu fa tabaarakallaahu waaye nag kaweel seen yitte boole ko jaxasoog bokk yëpp nga xam ne kenn ci ñoom ku woote rek mbokk yëpp lay wuy nee na ndaw ñoo ñooñu itam sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant bu baax te di leen soññ di leen ñaanal yàlla suñu borom taxawu leen ba dëgëral leen ci lislaam dëgëral leen ci liggéeyub sëriñ tubaab yi ngeen bokk ci ñoo ñuy Seex Muhammadul Muntaxaa di ñaan ñuy tawu yanu bu ëllëgee ba mu bañ a laal suuf yàlla na ci yàlla boole ndaw yii muy ndaw yi sëñ Mor Pende yii ak ndaw ñi nga xam ne ñoo sotoo ji foofu itam fi laay taxawloo ndax waxtu wi dafa xat waaye danaa ci profité rek joxe ci benn message tuuti boo xam ne sëriñ bi yóbbante nañu ko mbokk yi na ngeen xam ne ndaw ni ko seex Muhammadul Muntaxa waxee ñooy yaakaar yi ëllëg ñoo ñi lislaam gën a bëgg ñoo ñi lépp lu waay di di yëkkati loolu la gën a bëgg xam ngeen na ko mbokk ma waxee woon sax ministre ba ba mu dikkee jëm si Touba fekk ndaw ñu bari lool mu ne mbir boo ko gisee ndaw ñu bari ca lool di walwali jàpp nañ ne mbir mii mbir la mu jëm kanam loolu mu taxoon ba mu ko waxee xolom mëntu koo muñ mën a jàpp naa ne affaire bi fii la waaye affaire bi nag ci ndaw ñi la ba ndaw ñi na ngeen xam ne sëriñ Touba mii ñuy waxtaane ab ab ab muy sëriñ moor sëriñ Touba radiyallahu taala ci ñetti melokaan ba ñeent la fa la amoon ñetti melokaan yi Serigne Touba yooyu ba ñeent melokaan ñetti yépp dem na gisatuñ ci benn bi ci njëkk mooy sëriñ tubaa mii ñu gisoon mu daan baagante ci diggante gànnaar ak jolof ak gabon ak njaareem di wax ñuy dégg muy bind ñuy gis muy jiite di jàngale di soññee ci xam-xam di jàngal ndaw ñi di jàngal mag ñi ca seen kam nañ war a nañ mën a jànge ndaw ñi mu jaara leen ci njàngin wii ñu xam sëriñ tubaa moomu radiyallahu taala tey nun gisatuñ ko ci sunuy bët dëddu nañu dem mu des kan mooy mag mi mu mel na sëñ Mor Penda mi ak ña nga xam ne ñoo fa daje woon muy mbooloo mu bari sëñ Ibra Faati maam euh, ke maam ak sëñ Ndam Abdourahman Lo ak yeneen i mag yi mag lim bi li ma ci jublu mooy damaa bëgg a tudd ñenn rek mu labal ñi ci des ñoo ñooñee sëriñ bi defaroon nañ leen ba foofu waay masaan taxaw dana la waat ne sëñ Touba nga gis soo ko gisee la sëriñ bi daan wax lay wax moom lay digle la sëriñ bi daan tere lay tere itte ji sëriñ bi amoon la am ñooñu itam ñu sëriñ bi yaroon radiyallahu taala anhum kenn nekkatu mu des la mu des ñan ñu sëriñ bi juraloon boppam tàmbale ko ci seex Muhammadul Moustapha al ko ñooy ñoo ñetteelu melokaanu sëñ bi ba ci seex Muhammadul Mourtada ak sëriñ Saliou mi fi mujj koo ci masaan toogal danga mën a waat ne yaa ngi toogal sëriñ bi ci itte ju kawe ci jàngale ci yare ci defare ci laabiire ci melokaan yu kawe ak yëkk ak defar nit ak yëkkati ko doom yooyu tey sëriñ bi gisatuñ fi kenn ku bokk ci doom radiyallahu taala an kon sëñ bi ñetti malak melokaan yépp dem na benn melokaan moo fi des woo xam ne xëy na yeneen mën naa am waaye mii moom wóoru dara kooju ko mooy mbind mii mu bind bàyyi fi mbind mii mu bind bàyyi fi nag li ci ëpp da ko bind ci arab te moom sëriñ bi sax ci arab rek la doon bind mu mel ne kon ab soññee la ci ndaw ñi faw ñu jàng ba mën a liir leetar ak message bii leen sëriñ bàyyee ak ndono lu rëy lii mu leen bàyyee waaye faw ñu yaru ba mën a doxal message mission bu rëy bii leen sëriñ bi bàyyee kon faw ndaw ñu jàng faw ñu yaru faw ñu ami teggin faw ñu nangoo liggéey faw am itte ju kawe te bàyyi jële yoonu sëriñ bi ci dégg naa ak defe naa ak mag moo xam ne daa jubum xel rekk wax la nga jàpp jàpp ne lii moom mook alxuraan a yem loolu nañ ko nañ maa ngi wax ndaw ñu ñu moytu ko tey jëlee yoonu sëriñ bi ak am njàngaleem ci mbindam boppam mi nga xam ne dara raxu ko mbindam boppam mi nga xam ne dara raxu ko moo fi des ci melokaanu sëriñ bi nga xam ne dara kooju ko loolu nag li muy tegtale mooy ndaw ñi nañu am itte ci xam-xam loolu nag lay amatu ci ndax sëriñ bi soññee woon na ko ñi ko wóotu wépp soññee woon nañ ko waaye xam ngeen ne Cheikh Mouhamadoul Mountakha mii ñu ñaan mu yàlla mu yàgg fi te wér bi mu dikkee itteem jépp da koo jëme ci xam-xam xam-xam bi sax ni mu ko composé di lu rafet ak bokk itam am ci mooy ñu njëkkoon a ci kër sëriñ bi ànd ak moom mu tànn seeni njaboot ya nga xam ne ñoo ci njëkk ñu njëkk ci daara ji ñooñu bi ñu leen jàngal dong defu leen ko de ñu am xam-xam ñibbi toog déedéet ay missionnaire lañ dañoo bëgg ñooñu bokk ga amoon ca kër sëñ bi daje ba fa amoon ak jaxasoo ak itte ju kaw gee ba ba yoonu murid ñu jàllale ko ba mu agsi fii ba wër àdduna bépp ñooñu dañoo bëgg bu ñu génnee jàmm ñu ñaan yàlla liñ ñu bëgg ci ñoom lépp ñu am ko ñu doon ñoo xam ne ay làmp ak i jant la ñuy doon yoo xam ne kenn ku ne da ngay da ngay yanu ci yan ci liggéey bi ab yan boo xam ne foo toogati wala ñoo jataayool wala foo dëkk wala foo foo foo foo jaar ñoo ñooñu danañ ñoo doon ñoo xam ne dootuñ umpale sëriñ bi dootuñ tuumaal sëriñ bi ndax tuumaal sëriñ bi day bañoon na ko lool ba di ko weddil boppam daan faral di wax mbaa yàq sama der te yàq derub sëñ bi yaakaar naa lu bari lool la mooy di tuddoo sëriñ bi mel melokaan woo xam ne lislaam bëgg ko ak ngor bëgg ko jenn diine bëgg ko ba noppi di tuddoo sëriñ bi ba ku la gis xebete mbirum sëriñ bi ci yow loolu ci yàq ab deram la waaye bokk na ci itam di dajale ay xuraafaat di jël ay wax ci ñoo xam ne dañuy gént rek wala dañoo rafet ci xel rek nga di ko nga nga jël ko teg ko muy yoonu murit boobu ëllëgee ku dégg wax yooyu di critiquer di di ŋàññi sëriñ bi te fekk sëriñ bi moom critique ak ŋàññi ak si wut ci moom waaye ka koy nettali wala ka koy jàngale rek kooku moo juum juumte lu rëy rëy yooyu mooy li nga xam ne buñ sañoon ñu moytu ko loolu mooy message bi ma doon yóbbante ndaw ñi ñoo ngi sant yàlla bu baax sëriñ Ahmadou lii yàlla na ngeen ko def ay at yu baree bari jàngat ko ci magi sëriñ bi yépp ba ndaw ñi ñi nga xam ne dañuy wax ne ndono amatul wala ñu jàpp ne référence amatul ñu xam ne sëriñ bi moom bàyyiwut dara li mat a def lépp def na ko bind na bàyyi fi jëf nañu gis wax nañu dégg waaye nag tàggat na ay mag ñoo xam ne mag moo ci jàngat rek dana mat sangu jamono dana mën a gindi jamono dana mën a xetti jamono foofu lay jeexale bàyyi message bii nga xam ne maa ngi jéggulu sëñ sëñ sëñ Ndiouga bëgg ko cee yokk beneen bi ci des itam mooy boo gisee may may may may gën a insiste ci ndaw ñi mooy seytaane dafa amoon doole démb ak bërki démb ndegam yonent yi la daan song ndegam nit yàlla yi la daan song asamaan nag tey jii bi nga xamee ne nit yàlla yi baree bari dem nañ ñeneen ñi ci des itam ñu mel na man umpule nañ ci ñu baree bari donte la ñu baax ñaa ngi fi ba tey dañoo gis ñun bi ñuy nekk ci daara di jàng alxuraan di ndaw booba li ñu daan wax cinéma jàpp nañ ne mooy li gën a doon ak yàqu ci àdduna kon ku masaan dem cinéma dañuy jàpp ne yaay ki gën a yàqu ci ndaw ñi waaye cinéma li mu daan bon bon xalaati tubaab yi ko fi tegoon dañ daan wax ne film sàngam ak film sàngam ak film sàngam maanaam ku amul 18 ans doo ko seetaan ngir booba day mel melokaan woo xam ne ndaw dafa am lu mel ne image su seetu lu mu gis rek day tàppe ci moom des ci moom léegi nag ñu am melokaan yoo xam ne jàpp nañ ne booba ñoom duñ ay defarkat waaye jàpp nañ ne ndaw warta mën a àgg foofu ci yàqu ñu di leen ko bañ loo waaye tey jii nag film yooyu ñu doon wax tey ndaw li amagul juróom-ñaari at moo yor appareil boo xam ne la nekkoon ca film yooya ak la ko gën a bon ak la ko gën a yées lépp mu ngi ci appareil si nga nekk ci sa kër xale bi yor ko ci sa biir kër fenn fu ne mu dugg fa mu mel na kon bis bu set mi ngi yendu di fanaan ci cinéma mu mel na seytaane bu doon xeexe tey benn ngànnaay tey am na junni junni junni ngànnaay yu muy xeexe kon ku am ndaw di tëdd di nelaw wala ngay ree ba kekku ja sa sa sa xalaat des na lool lool lool lool ndax lii xeex suñuy ndaw yàq yi benn appareil su ndaw boo ci saagaa mu daj àdduna boo ci ŋàññee mu daj àdduna boo ci yàqee mu daj àdduna boo ci yàqeem xel wala nga yàq ci diine wala nga jaxase ci diine wala nga tuumaal ci diine wala tuumaal ku baax mu daj àdduna te xale si yor ko te lu baree bari lu baax a ngi ci waaye li ci ëpp daa bon te moom bu duggee dañ koy présenté li bon amagul xelum tànn li bon ak li baaxul ko am ndaw lu mel noonu war ngaa farlu kon seenub liggéey Serigne Ahmadou lu réer la loo xam ne mission bu rëy lañ leen sas yàlla leen yàlla jàppale mi nga xam ne ku mu jàppale nga am ndam ci liggéey bi ñoo ngi sant bu baax di gërëm bu baax di ñaan ñu dajawaat ko ci yeneen yi mag ak yeneen i ak mag sëriñ Mor sant na ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. barakallahu fiik sëriñ bi jërëjëf kàddu yi jot na matale na liñ ci doon séentu lépp am nañu ko ci mu mel ni dañoo wax ne dafa am mbokk moo xam ne téléphone am dafa wadd marque Samsung la ku ko for mën nga koo indil fii taabal ji insha allahu dana ci jot téléphone bi mark Samsung la daa wadd kon xam naa dañuy njëkkante ak waxtu wi jox sëriñ Ibrahima Mbakke mu def ak fàttali tuuti rek ci jëmm ju tedd ji nga xam ne mooy sëriñ Mor kon sëñ Ibrahima bisimilah délégation yi li ñëwoon fi jeex na xanaa sama gaawee ci bunt bi sëñ Mbàkke su fekkee am na benn liste bu bu fi nekk te mën cee jot soxla woon nañ ko sëñ Ibrahima Mbàkke bokk si njabootu sëriñ Ibra Fari mooy jël kàddu gi sëñ Ibrahima bisimilah bismillaahi rahmaani rahiim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi sawi ridwaan wa tamkin bokk yi maa ngi am mbégte bu baax ci jëfe ndigal li nga xam ne dañ la ko sant ngir ne mënoo ko ñàkk def te jëfe ndigal di leen leeru fajar looy gën a dox muy gën a leer ñàkk jëfe ndigal di lëndëmu marax looy gën a dem muy gën a lëndëm ci biir ndigal loolu maa ngi jottali kàddu nuyoo ci seex Muhammadinil Muntaxa mi fi nekkal seexul xadiim ñu dolli ko ñaanal mu dolli fee yàggatu dolli ko ak wér ki noonu Cheikh Mamadul Badawi mi nga xam ne moo jiite kuréel bii di Rawdu Rayaahiin ñi ngi teg nuyoo bi ci loxoom mu jot jottali ko Cheikh Mamadul Muntaxa niki noonu Serigne Cheikh moor Mbacke mi nga xam ne moo toog ci bopp njabootu Cheikh Mor Penda gépp ñi ngi koy nuyu moom it te di ko ñaanal mu dolli fee yàgg lool te dolli ko ak wér ci barke Seexul Xadim di teg loxo di teg nuyoo bi nag ci loxol sëriñ Daam Mbakke moom moom Cheikh Mamadul Mourtada mi nga xam ne kilifa la ci kër gi njaboot la ci kër gi taxawaay bu mag la am ci biir kër gi sëriñ bi ñu ngi lay nuyu bu baax mu mel ni tomb bi sëriñ bi doon def waxtaan wi sànq def as suxba fillah doon waxtaane ñi àndoon ak sëriñ bi ci nañ ànde woon ak moom ñu tànn kenn ci mag ñi tuddee ko bis bi muy Cheikh Mor Penda ñu laaj bu ñu la laajoon ne sëñ Mor Penda mooy kan danga naan mawliduhu wa nasabuhu wa taalimuhu sëñ Mor fan la gane jamono sëñ moor ci wan askan la bokk sëñ moor fan la jànge loolu mooy tomb bu njëkk bi ñaareelu tomb bi mu mooy sëñ moor mu bàyyaatuhu li cheikh al ak jaayanteem ak cheikhul xadim ñetteelu tomb bi mooy makaanatu cheikh moor penda hinda cheikhul xadim ci ban taxawaay ak ci gan anam la sëriñ Mor Penda nekke woon ci seexul xadim ñeenteelu tomb bi mooy tasdiruhu wa baasuhu li insaai markati tarabiya tarabiya yi sëñ Mor fan la doon liggéeyale yàlla fan la doon tarbiya ay ndaw fan la doon jàngalee xam-xam juróomeel bi mooy yan mooy melokaani Seex Mor Penda kon juróomi tomb yooyu lii ma bëgg a wax foofu la jëm ngir njëkkanteeg waxtu wi ngir bañ a jël lu yàgg sëriñ Mor pend mi ngi gën a jamono xam naa su ma juumee sëriñ Mbàkke Abdourahmane mi ci jataay bi historien bi nga xam ne marjaan la ci yoon yi delluwaay la ci yoon yi 1864 wala 1865 juin juin 1864 la ma ba jaxu yóbbu kilifa yépp ñooro juin juillet août septembre octobre novembre la maam Ceerno gane jamono histoire dafay juumloo kilifa ba kilifa ga di joxe loo xam ne nam koy joxee duni te da koo dégg te gëstuwu ko dangay dégg ku naan maam Ceerno dafa ganee jamono poroxaan ba ñu ñibbis yoon wi lañ ko tuddee déedéet dañ naan gane Porokhane la gane jamono waaye ci yoon wi lañ ko tudde bi ni ñibbisi juin lañ fa dem juillet août septembre octobre novembre maam Thierno gane jamono si waa 64 wala 65 ci suur boobu le 30 novembre boobu ci la ma ba jox ko dajeeg bi ci Paoskoto ci bis boobu la maam Thierno gane jamono am na dëkk bu ñuy wax Diabakounda ñaar fukki kilomètre la ak juróom ci diggante Poroxaan ak Banjul booy dem Banjul jóge Poroxaan ngay dem Jaabakounda vingt cinq kilomètres li may wax nag du lu ma laaj dama faa dem vingt cinq kilomètres la ma bajo ko daf ko defoon stratégie de guerre ku mu bëgg a rawale foofu la lay yóbbu foofu la ñu yóbbu soxna ndey waajur maam Thierno bañ tudd ko ba noppi ba guerre bi dal ju doog ko dellu siwaat ñooro waaw ñu siwaat ñooro kon 64 la aw 65 loolu moo tax sëñ maam maam Thierno li magee sëñ Mor Penda bariwul mm, sëñ Mor Penda 1828 la fi jógee 28 soo ko génnee ci 1865 6300 yim dund da lay jox 6300 la dund 1865 boo ko moyee ci 1928 mu jox la 6300 kon 65 ans la judd maa ngi gis 65 ans la 65 la gën a jamono ma sëñ Mor Penda maam daam sëy na bu baayam ak maam sàmba sëy na bu ñoo bokk ndey ak baay maam daam sëy na bu moo jur sëñ Mor Penda daa bokk ci mag ñi ma bajaxu yóbbu woon ñooro ma bajaxu 1867 la daanu ca sombo la ma bajaxu daanu 65 lañ fa dem 66 67 ma bajaxu daanu soxna jaara mi ngi faatu ci 66 bi def fa ñaari at moom 66 lañ fa la faatu 65 lañ fa dem aw 64 66 mu faatu 67 ba ba jaxu daanu maam daam seen bu mu jur sëñ Mor Penda bokk na ci njëkk a ñooro ngir dellu siwaat Mbàkke ba saxal nañ ne moo dekkalaat Mbàkke kon danga naan maam sëñ Mor Penda Poroxaan la gane jamono lan mooy askanam maam maaram Cerno Farimata Ahmadou Diosi daam Seynabu sëñ Mor Penda damay àbb rek la am si waxoon ne nasabun taxsibul xulaa bi xulaahu xaladataa nujoomaha jaw saaw askan la woo xam ne te loolu day wér ndax sëñ Fallou moo waxoon ne maaram mooy suñu àddunaan te ba am si borom am si di wax nasabun taxsabul xulaa càll la kooka taxoon muy wax kon dangay ngay jàpp ne sëñ Mor Kenda nasabun taxsabul xulaa bi xulaahu aw askan la bokk woo xam ne seen màndarga mooy yëkkatiku jëm ci yàlla muy seen màndarga loolu mooy askanu sëñ Mor Penda fan la jànge mooy ci seexul xadim ginnaaw bi mu jàngee alxuraan ci waajuram bi waajuram ñibbisee mbàkke ci loxol boppam lu nekk ba waajuram jën àdduna mu dem fekk sëñ tubaa njàngum sëriñ Mor Penda sëñ tubaa ko trasel boppam sëñ tubaa moo wax ne inni amartu kulla man taalaxa li wàcci laahi taala karim bi taxallumil xaqaayid yéen ñi aju ci man maa ngi leen di digal ngeen xam lu seen fas-fas ci seen diggante ak seen borom wa ahkaami tahaara wa salaati wa sawmi wala ajji wa sàkkati maa ngi leen digal ngeen xam lu ko waaye duma ma dem ci digal leen ko waaye nii takallaftu lakum bi tawaalif yakunu fiha jamiu saalif danaa leen taalifal téere yoo xam ne lii ma leen digal lépp dana ci nekk dal di taalif ay téere yuy jàngale loolu sëriñ Mor Penda foofee la tàmbaleem njàngam moom téere yooyu sëriñ Tuubaa taalif di ci jàngale nu ñuy xamee yàlla ca la ko tàmbale ma tudd ci benn téere rek bu ñu tudd Mawaahibul Xuddoos bi jàngale tawhid te imaamu Sanusi yi defoon ko moom um, tuddoon ko Umul Barahin tuddee woon téere bi Umul Barahin sëriñ Tuubaa taalif ko tuddee ko Mawaahibul Xuddoos foofu danaa fi wax ne ñii wut yàlla wala ñuy jàngale tawhid ci wàllu yàlla Sëñ Tuubaa dafa xam ne walam yaral ak yaasu taalifan ata fiihi ka misli ma sanusi asbata kenn mësula indi ci wàllu tawxid lu mel ni li imam sanusi indi ci wàllu tawxid waaye ci biir njàngaleem Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa jàngal dolli na ci xam-xamu imaam tos imaamu sanusi ba bay beneen bayit dafa ko ne wa rubbama fi mawdihin sayan asid lam yàkku fi nasri li yanfaal balit te daa waxoon ne fee kenn ci ñoom mësa gis mel ni ma ci wàllu tawxid kon nga gis sëñ Tuubaa ni mu leen rombe ak ni ci xereñe ak lim ci man sëñ Moor jàng tawhiid ba xam boromam sëñ Tuubaa jàngal ko ahkaamu taara yi lépp ba mu xam ko daal cee teg ne leen nag aleykum bil ilmi wal amali ma taaddubin ba noppi muraafaxan sayxan jama digal naa leen ngeen sàkku xam-xam ba am ko bu ngeen ko amee na ngeen jëfe xam-xam bi ngeen am bu ngeen ko jëfee naan ànd ak ay teggin ba noppi nag ngeen doog a wuti ab sëriñ léegi lan moo xew dangay ngay jàng ñetti téere jàpp ne kenn rawatu la la ngay wuti sëriñ waaye dangay ngay da ngay xeeb ñi fi ñi la raw te sëñ Tuubaa dafa wax ne alaykumoo bil ilmi wal ba noppi nag mu raafixan sayxan jama nga dem wuti sëriñ bu boole yépp loolu moo taxoon mu mën a mu mën a jiite mu mën a jàngal ñu bépp doon seen kilifa kon ndeke ab taalibe bi sëriñ bi doon wax léegi li muy njëkkee def mooy day jàng ba am xam-xam jëfe xam-xam ba mu am ànd ak teggin doog a wuti sëriñ nag bu mu àndanteel bu jëm ci yàlla kon sëriñ Mor noonu la def dafa jàngi ba am xam-xam lam xam ci yàlla mu jëfe ko boole ko ki teggin dem wuti sew la di def ko muy kilifaam ñaareelu tomb bi mooy mu bàyyi aatu Cheikh Mor Penda ak jaayanteem ak sëriñ Tuubaa kon jàng na ci sëriñ bi ba xam li mu war a xam sëriñ bi woote yoon wi ci kanam mu jaayanteeg sëñ Tuubaa loolu wax nañ ne sëriñ bay wax sëñ war ne ko maa lay wax li ñuy jaayantee wax la li ngay wax nangul la ko maa lay wax ni koy waxee lan mooy jaayante ci bopp maa la koy wax ba nga xam luy jaayante moo wax la it koy waxee ba noppi nangul la ko sëriñ bi daa wax ne amara nii rabbi la wax amara nii rabbi bi an usarriha bi annani himan wa mafsahan wa maljaan wa man araada al xayra fii kiltay daarayni fal yalus biya amarani rabbi suñ borom moo ma digal bi an usarriha ci ma leeral ne bi an nii man Cheikh Ahmadou Bamba himan kaaraange laa mafsaan wéeruwaay la maljaan wéeruwaay la daal ne wa man ku bëgg aw yiw àdduna ak fal yalus biya kaay wéeru kaay jaayante ak man loolu leer na nañ loolaa waral mag ñëpp ñëw jaayante ak moom ci biir jaayante bu sëñ Mor jaayante ak sëñ Tuubaa booba day ay atam bariwul ndax bi waaye juróom di génn àdduna fukki at ak juróom benn la am moom sëñ Mor mu jógee Mbàkke dem fekk sëñ Tuubaa Mbàkke Kajoor waaye juru sëñ moor Penda soxna Penda ka bi daam sëy na maam daam sëy bu faatoo moom dafay bàyyi sëñ moor Penda sëñ Mor Penda nekk ak maam Sàmba sëy na bu moom mu dem Mbàkke Kajoor fekki sëñ Tuubaa sëñ moor bi àllu am noppee dafa dem fekk sëñ sëñ Tuubaa Mbàkke Kajoor fa waay juróom jaayanteeg sëñ Tuubaa àndanteeg sëñ Tuubaa mooy ku teqali ko wut ak sëñ Tuubaa mooy ku teqali ko wut ak sëñ Tuubaa ba sëñ Tuubaa woon ko ginnaaw bi sëriñ bi dem ci géej gi bi sëriñ bi dem ci géej gi sëñ Mor Penda am na ñaar fukki at ak juróom-ñeent. wala ñaar la fanweeri at am na fanweeri at daanaka ndax 1864 wala 65 ba 1895 bi sëriñ bi dem ci géej gi sëñ Mor am na fanweeri at daanaka sëriñ bi waxoon leen ne yow de sëñ Mor soo ko mënee na nga nekk ba ma ñëw nga doog a samp kër sëñ Mor xaar ba sëriñ bi dem ci géej gi ba dellu sëñ Mor bi muy samp kër daanaka am na ñeent fukki at 40 moo tax dund na ba faatu gisul sa sëtam moom bàyyi fi doom ji góor ji am soxna bàyyi fi doom jigéen ju am doom te am na 103 ans lu ko ko waral mooy sooba bi nga doon wax léegi nii dafa àndanteeg sëñ Tuubaa ci bu déplacé wutu mooy soxba bi mooy soxba bi nga doon wax léegi nii dafa àndanteeg sëñ Tuubaa ci def ndigal bàyyi tere si faatu saadiqil muridi bi ixtisaar arbaatun nasamtuha xaw fax tiraar li ko sëriñ bi digal moom amu ci lu muy linkaar boo ko manee da koy man bu ko mënutoon du ko wax moo tax mu ànd sëriñ bi ci li sëriñ bi bëgg xam na ne mën na ko mu muñandiku ba sëriñ bi dellu si ci sikk bi mu am 63 saa bàyyiwu fi doom gisut sëtam tomb bi ci tegee mooy fan la sëriñ Mor Penda nekkoon ci seexul xadim xanaa fi saxaaba yi nekkoon ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam sëriñ laa daa waxoon ne sëriñ Tuubaa noon na def ma ni saxaaba yi defoon yonent bi dem mooy jafe waaye ku ma def ni saxaaba yi defoon ne ma defal yonent bi defaloon kon ñoom te wax na léegi ne yonent bi moo ah, sëriñ Tuubaa moo waxoon ne saxaaba yi mooy seen baay ci diine kon sëriñ moor fan la fare woon sëriñ Tuubaa mooy fi saxaaba yi fare woon yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi sëriñ bi demee gànnaar ba ñibbisi ci géej gi ba sëñ Mor samp kër sëriñ bi dem gànnaar sëñ Mor fekk ko fa sëriñ bi daa waxoon ne gànnaar dafa am ay critères yoo xam ne ku ko remplirul bul fa ñëw dangay ngay mën alxuraan da ngay ñeme tiif da ngay ñeme tumuraanke loolu suñu Ebo Mbacke yàlla ko yàlla doolu yërmande moom si moo daaw soxnaam moom ma ko nettali wax ne sëñ Tuubaa dafa waxoon ne ba mu demee Gànnaar dafa am ndaw lu mu teg ci barab ne ko bu la fi kenn romb te remplir condition yi mooy na man alxuraan na ñeme tumuranke na man liggéeyab góor waaw dafa na man liggéeyab góor na man alxuraan na ñeme tumuranke la may def lu alxuraan da caa bokk nañ na ñeme tumuranke lu ñu lekk amu fa te bëgguma ñu yelwaani naar yi na man liggéeyab góor képp koo xam ne sart yi rempliroo ko boo ñëwee la nga yor da nga koy jox jëmm jooje te dëpp dellu sëriñ Mor nag waxuma la tekki sëriñ waaye dafa àndoon ak moom sëriñ Musaa Ka daf ne déglul ma wax la ña sant woon dem gànnaar ànd ak sëriñ tubaa te ñéppi jàmbaar kon ba sëriñ bi dem ñoo ànd moom bi ci géej gi ba dem gànnaar mook sëriñ Mor ma wax la ña sant woon dem gànnaar ànd ak sëriñ Touba te ñéppi jàmbaar njëkkeel sëriñ aafe la wax njëkkeel sëriñ aafe rakam mooy woo mooy woote sëriñ Mamar Pendaay loxoom du wuute sëñ aafe ak sëriñ Mor Penda ñi àndoon ak sëriñ Tuubaa dem gànnaar ci lañ bokk ñoom waxuma ñu naan toog leen ci barab ñu contrôler ba xam ngeen ne wala mun leen dem kon moom remplir na condition yi avant sëñ bi di ko wax lu mu àndee woon ak sëriñ Tuubaa inna Allaha astara minal mu'minina anfusahum wa ñoom dañoo jaay dañoo jaay seen bakkan sëriñ Tuubaa ci àndanteeg moom ni ko saxaaba yi defoon ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam noonu la sëñ Mor Penda defoon ci sëñ Tuubaa loolu misaal mi mooy ñu bari nettali nañ ko ne bi ko sëriñ bi yónnee jumtukaay yoo xam ne dañ koo dogale ci yoon wi ngir bëggoon a dindi bëggoon ko nangu te sëriñ bi sëriñ Mor jëflanteeg ñoom bañ damm baaraamam mandarga muñ damm sa baaraam ci yoonu murit ci seex si àndoon ak sëñ Tuubaa boo limee ñaar ñett yi doon ñeent màndarga moo xam ne dañoo damm sa baaraam ci yoonu murit bii ngay kilifa goo ci jamono yooya nga joxe mandarga mel noonu boo nee benn ñaar di dégg gu ma ñetteel bi kon amoon na màndarga moo xam ne la ko ko mayoon mooy dafa jaay bakkanam sëñ Tuubaa ci yoonu yàlla am na xisa bu ñuy nettali ci gànnaar xisa yi dafa baax ñu koy gëstu sañu ko nettali ni mu demee xisa bi may nettali ñaar dox diggam ak sëñ Mor Penda sëñ Mor Penda ko nettali mam mam Balla Khoudia Gaye Samba Seyna ko jur Samba Seyna boog Dame Seyna ba bokk ndey ak baay mam Balla Khoudia Gaye sëñ Mor Penda ko nettali xisa bii sëñ Mor Penda mam Balla Khoudia moo ko nettali ci ma ko nettali kon ñaar moo tax diggam ak sëñ Mor ci ma ko wax ak si ak mam Balla Khoudia mu ne mam Balla Khoudia Gaye ko wax ne ko sëñ Mor ma may ko darajey sahaaba xibla gu Bàmba jublu muy kaxaaba wax na ne maam Balla nee na sëñ Mor ko wax ne ko sëriñ bi daa mu ne ma mamar la ko daa wooye mamar fabal fabal sa sasala gi ak ak sajaara gi nee na mu fa sajaara gi ma topp ci kawam sëriñ bi di dox ba fa mu bëgg ñu laal ko fa mu ne mamar lalal sajaara gi nee man lal sajaara gi ñëw taxaw di nee na ma fa ma lal sajaara gi sëriñ bi ñëw di jàpp ni ma laale sa jaada gi jubale ko xibla sëriñ bi bi jàppee ba noppi ni mu ne ñokkee fi mu doon jàppee jawali sa jaada bi bi mu agsee rek dafa kàbbar te man ni ma lal sa jaada bi ak ni sëñ bi jublu bokkul ne sëriñ bi bi mu sëlmee dafa ma ne mamar mbaa amoo sikki sàkk ci ne fi nga lal si jaada bi mooy seen xibla mamar xanaa mbaa amoo sikki sàkk ci ne fi ma lal bi mooy seen ma ma ne ko déedéet mu ne ma xanaa gisoo mandarga mi fi Sëriñ Tuubaa taxaw di julli sëñ Mor Penda maa ngi seen torong bi ci suuf wala maam Balla ko jógee ne sëñ Mor a ko wax ne ko fi sëñ Tuubaa taxaw di julli maa ngi seen maa ngi maa ngi seen torong bi sëñ Tuubaa teg tànk mi bi sëriñ bi sëlmee ne ko ma wax mbaa amoo sikki sàkk ci ne fi nga teg xibla bi mooy seen xibla waaye man fu ma jublu foofaay xibla bi loola gànnaar la amoon ñaareel bi mooy amoon na mbubb mu sëriñ Mor Penda amoon moo xam ne sëñ Tuubaa la ko jële woon mbub mooma maam la ko jegee nee na sëñ Mor ko wax ne ko sëñ Mor dafa maa woolu ba ma ñëw mu ne ma Mamar mu ne ma ma Balla ma ne ko mu ne ma jox ma këmb see na ma jox ko këmb si mu fecc ko mbub mi nekk ci biir mu ne ma jox ma super bee ma jox ko super mu raxas ko ba ndox mi def ci fab mbub mi jàmb ko ci biir ba mbub mi tooy sëñ Mor seppi mi daal di naan saafara si daal ko ne ko ne mambal la mu ko mu ne ko mii sama sang baa ma ko jox te gànnaar ba ma koy jox daf maa wax ne ma mbub mi waxtu ba ko solee di liggéey liggéeyal yonent bi salaatu sallallahu alayhi wa sallam kuy sa bët tege sa yaram aramal la ko jegee wax ne mbub moomee bi sëriñ Mor Penda demee ba dëgmal boroomam ba tëdd daf ko woolu mu ñëw mu ne ko andil ba mbub mi mu indi ko mu andil ko super bi mu def ci ndox fab saafara si def si jàmm ko ba mu tooy mu seppi mbub mi nal ko ba mu ba mu deñ mu fasaat ko daal ko ne mam balla mu ne ko mbàkke mu ne ko bi ma jox benn saafara ba ba may wujji sama borom ma ki ma ko nettali mam balla xuddi nee na saafara suuf si laay jox sëñ Mor moom dafa jeex tàkk ci seexul xadim la àndoonte woon bi mooy tasdiruhu wa baaxsuhu li insaay markasi tarab tarabawi ak taalimiya sëñ Mor Penda fan la nekkoon doon yare mbooloom ak di leen tërbiya mooy fi ñuy wax tund mbayaar mbayaar mooy mbàmpara sëriñ bi sëñ moor pend bi sëriñ bi demee gànnaar sëriñ moor pend mi ngi fii ci ma Manaan benn bis mu jógee fi dem fekk sëriñ Tuubaa gànnaar eh, jolof laaj ko ne ko damaa bëggoon fu ma liggéeyee loolu ma ñaan na sëriñ bi ñëpp daanañ ko def sëriñ bee ko wax ne ko kaay dem mbàmpana sëñ moor wax na ne turu mbàmpana ci sëriñ Tuubaa laa ko dégg te booba ñaari mbampana am te xamul gan la ci am na mbampana gu nekk fii ci ginnaaw dëkk bi nu mu tudd ci weti eh, boorombe dànq foofa la sëñ moor njëkk dem ba mu ko leerloo laaj ne ko daa am genn mbampana ñu ne ko waa mu doog a ñëw ci mbampana gii tey gii mu sañ ci tey dëkk fi lu mu fa def di fa jaamu yàlla di fa liggéey mbay moom fa njëkk a bay daf ko yót sëñ tubaa jolof sëñ tubaa xool addiye ji xam fi suuf si ñore mu ne ko fii laa doon wax nga xam ne bi mu jotee addi ji la xam ne mbàmp na la ñore daal ko ne ma Mor Penda boo demee defal ma fa kër sëriñ Mor Penda del si mbàmp na sampal fi sëñ Tuubaa kër di gannaaw sëñ Fall di ko fi kër néeg néeg def ci ab lal sëriñ bi wax nañ ne bi mu Jolof jëm si jëm si njaareem sëriñ Mor Faati Touré moom la sëriñ bi laaj na ko ndax kër ma Mor Penda sori na fi mu ne ko sori fi waaye dafa wàcc yoon wi te booba sëñ bi résidence surveillée la nekk sëñu ta jàdd sëñ bi ne kon bu ma àggee doog fi doog doog doog fi doog ko yéene wolu ko loolaa waral suñu taal bii dem jaar njaareem jaar si wul kër sëñ Mor Penda waaye bi mu jógee Jolof bi mu tolloon Ndula daa laaj sëñ Mor Faati ne ko sëñ Mor fu këram toll Mamar Penda fu ne ko soriwut de waaye daa wàcc daa wàcc yoon wi loolaa waral sëñ bi jaaru fi foofu la sëriñ Mor Penda nekkoon ci Bampana doon fa yar ak njabootam juróomeel bi mooy lan moo doonoon nag melokaanu Cheikh Mor pend defe naa ne loolu mooy actualité bi tax ñu daje ngir war a waxtaane kan mooy sëñ Mor Penda loolu mooy ba bi nga doon waxtaane lan la war a jànge ci sëriñ Mor Penda kaana Cheikh Mor Penda radiyallahu anhu rajulan tamoan xaalil himma la woon kawe ay yitte la woon te gis nga yitte si aafe jàng yàlla ko yàlla dool di xéwal dama ko masalaaj ne ko waaw lan moo yitte dama ko masalaaj ne ko lan mooy yitte mu ne ma mooy ku bëgg lu wuteeg li nit ñi bëgg ku bëgg lu nit ñi bëgg yaag nit ñi yem rabbi asxaabaka bil himma mooy la ngay bëgg day wuteeg la nit ñi bëgg waaw koo xam ne li nga bëgg yàgg nit ñi yéen a bokk bëgg yàgg nit ñi yem loolu mooy himma ci ne ma ko si aafe ña ngi firile woon himma mu ne si si kon xaalin himma la woon mooy ku kawe ay yitte la woon salimul xal bi la woon ku selloon ab xol la wari aan ku sàmm la woon shaahidan ku dëdd la woon fi dunia tur boobu nag mooy shaahid fi dunia fa kullu man sumiya bismi suhdi fa huwa mamduhun bi kulli majj sëñ Tuubaa nee na képp ku ñuy wooyee ab dëddukat nga loolu mooy tur wi làq tedd nga jëpp juwaay di mën a sàkku fa kullu man sumiya bismi suhdi fa huwa mamduhun bi kulli majj kon ku dëdd woon àdduna sëñ Mor muqbilan alal aaxira jublu alaaxira ak boromam sëñ Mor saqiyan la woon jawaadun la woon sumootan la woon ku tabe la woon ku noppi la woon ku jàmbaare la woon sëriñ Mamar Pendaay xaritu Bamba fu raas la woon Bamba defar xolam ba ab seex la woon bu fonk xeeti njàmbaar ku weddi laaj ña ko doon te gànnaar kon njàmbaar googu moom ñëpp siiw na ba ñu bari teg seen bët sëñ Fallu Mbàkke bi sëñ Modou Mor yàlla ko yàlla doolu yërmaade nee daa am bis ma xëy sieblaat ànd ak sëñ Basum sëñ Modou Mor ñuy siyaare sieblaat nee na bi ñu jubee kees gi rek am na jëmm juñ dajal daf nañu laa ilaha illallah yéen day sëñ Mor sëñ Ablaat ci sëñ Mor Penda la doon waxtaan léegi sëñ Fall nee na bi ñu nettali saal bi sëñ Ablaat def ne laa ilaha illallah de ci suba tey sëñ Mor Penda laay waxtaan lu tax si Ablaat doon waxtaan sëñ Mor Penda mooy njàmbaar ga mooy pas-pas ba mooy taalibe ga mooy dëggu ga mooy bëgg sëñ Tuubaa jàpp naa ne yii comme dajewul ci yow sëñ Ablaat jombaate naa muy toog di waxtaan ci yow bëgg sëñ Tuubaa gu njàmbaar gu mat sëkk taalibe gu mat sëkk fit te yàlla rek tax kon daje woon na ci moom xarisan ku xër la woon moom sëñ Mor Penda xalaa xidmati Cheikh al Xadim ci liggéeyal sëñ Tuubaa kenn amul sikki sàkk ci ne ñi ko ñi ñi ñi ñi xam ne mujj nañ ndax dafa am dafa am ci mag ñi ñoo xam ne dañoo jamononteeg sëñ Mor te bi ñu fi jógee yàggul ku mel ni maam Balla Khoudia Gaye moom may cité sëñ Mbàkke saalum ak maam Balla Khoudia Gaye ñoo bokk baay sëñ Mbàkke Saalum sëñ Tubaa ko joxoon sëñ Mor Penda sëñ Maam Balla sëñ Mbàkke Saalum moo ko jox sëñ Mor Penda loolu sëñ Mbàkke Saalum sëñ boo ko nettalee moo wax man sëñ Maam ko jógee sëñ Mbàkke Saalum moo ma jox sëñ Mor sëñ Mbàkke Saalum sëñ Tubaa ko jox sëñ Mor sëñ ba tax na moom sëñ Mbàkke Sa sëñ Maam Balla ko jógee ci loxoom la sëñ Mor Penda wàcceeb liggéey bokk na ci ñi gënoon a xam sëñ Mor. du ma ne ci njëlbeen waaye ci ak mu jëm moo tax xisa yi may li marja bi ma koy tudd mooy dafay baax li ngay wax nga xam fi mu fi nga koy delloo ba ëllëg ku ko bëgg a tuxalit mu gëstu ba am lu gën a leer loola bi ñu tegee mooy ci ay jikkoom sëñ Moussa daf ne woon yaa sha'ili xan haali man tawahada a sayxu mammar penda najlu ahmada yow mi may laaj yow mi ma bay laaj kan mooy suñ Mor penda sëñ Moussa Ka wax de yaa sha'ili han haaliman tawahada asayxu mamar penda najlu ahmada ñu ne ko waaw mu ne fa inna nii ariftuhu xaqiqa maarifatan kuntu lahu sadiq xam naa sëñ mor bu baax dëgg-dëgg xam laa ko xam ndax sama xarit la woon ñu ne ko waaw mu ne fa huwa sayxun warihun jawaadun lahul wufuudu wa lahul jawaadu te dafa baax nit ki buy wax ci nit mu xam ca moom la muy wax lu wér loo xam ne bu ko waxee dana naqaree toxal sëñ Moussa Ka li mu xam ci sëñ Mor Penda ci yoonu murid bi dama ne sëñ Moussa Ka ci yoonu murid marjaan la ci boo tuddee benn benn marje ñaar danga ko ci boole la mu ca teg daf ne rabaahu sayxi sëñ Tuubaa ko yaral boppam rabaahu sayxi ahmadul mbakki radiya anhu llahu wal makkiyu sëñ Tuubaa ci boppam mooy yaral boppam sëñ Mor Penda ba àgg ci wax de ko bis mamar nan naa lii weex ci sabab bi bi jaaw la mu ne ko waaw mu ne kon day alhamdulilahi rabbil alamin yar ndaw yar nit ci ak ndawam ba mu suq ko bi jaaw te mosoo koo jaaj loolu siiw na lool ne suñu tubaab wax na ko si Mor yar nit ci ndawam ba mu ko bi jaaw te mosoo koo jaaj loolu day aw tagg la loolu day jikko la loolu day melokaan la kon loolu nañ bàyyi xel ne melokaan si morpend Penda bokk na ci waaye bokk na ci melokaan si Mor Penda jikko yi may bëgg a lim Muhammad Sami al-Barudi yi daa waxoon ne ala inna axlaaqa rijaali wa innamat fa arbaatun minha yafuuqu alal kulli ala inna axlaaqa ala inna axlaaqa rijaali wa innamat fa arbaatun minha tafuuqu alal kulli jikko yëpp soo leen boolee la wax yëpp soo leen dajalee ñeenti jikko képp moo kawe yooyu yëpp jikko ju ñu la mën a limal la wax soo leen dajalee bañ daje ñeenti jikko yi ma lay bëgg a wax moo tiim jikko yooyu yëpp ñu ne ko ban ak ban mu ne waxaaroon bi kibrin mooy nit ki fexe ba am ak weeg ci boppam moom te ak rëy lalu ko waxaaroon bi laa kibrin ñu ne ko ak ban mu ne wasafun bi asan mooy di jëlale te doo lor kenn wa joodun bi mooy tabee ba noppi te koo jox kenn du ko xam wa xilmun bi sulli mooy leer ba noppi te doo lor kenn te doo toroxal kenn kon alaa inna axlaaqa rijaali wa innamat fa minha tafuuqu ala alkulli wa xaarun bila kibrin wa safun bila asan wa juudun bila mannin wa xilmun bila sul ñeenti jikko yi la shaayir bi wax ne ku ko lëkkaayoo làq na mbooleem jikko yi nga xam ne nit dana ko tudd feneen te ñeenti jikko yi moo doon jikko yi sëñ Mor Penda ku wegu la woon ku wegu la woon ba kenn yebu ko woon amul woon dara ci ak rëy ku mënoon a jëlale la lar mësta bàyyi ko ci moom jëm ci kenn ku tabe la woon ku masaa jox kenn du ko yëg ku lewet la woon daawul toroxal kenn loolu mooy jikkoy ab sang kon bu ñu dajee fii ñu tànn sëñ Mor Penda tuddee ko bis bu mel nii ngir waajtaay wu jëm ci màggal ak Tuubaa ñu tànn sañ Mor Penda li ñu ko tànn ñoom liñ bëggoon a def def nañ ko mooy xool mag mu baax ñu wax ko seen ña ko ña ko ñam yi ay sëtam ne leen seen maam lañ bëgg a wane yéen ñi ñuy seen maam nag yéen ay indi li ngeen teg wan ko ne ko lii mooy suñ maam dama bañoon ñu gàttal waxtaan wi nit ki soo koy wax soo koy wax sa kilifa te xamu ko nit ki soo xamul sa kilifa nga di ko ko wax loo wax rek day jàpp noonu sa kilifa mel moom gannaaw xamu ko nga di ko ko wax boo ko gàttalee wala nga tënk ko wala nga jël ko ba bàyyi ko fa moom xamul li nga bàyyi li nga jàpp wax rek la jàpp ne mooy sa kilifa kon ki leen jox bis bu mat sëkk ne leen dañ ko tudde sëñ moor Penda fii ba ba asamaan di set bis bi yéen ko moom da ngeen di fexe ba li ngeen wax da war a wax lu ngeen wax war a wax rek bu fi kenn wax loo wërta wax ay mukaalaf kenn du leen di wax loo wërta wax loolu rek jafe-jafe ak da ngay fexe li ngay wax nit ñi na ko nit ñi a dégg ay xuraafaat wala ngay wax leen loo xam ne ku ko dégg xam ne lii wérut loolu moo jaaduwul waaye kenn doo jox bis bu toll nii mbooloo mu toll nii mobilise ay mukallaf toog nga ñëw tegoo ci seen loxo dara kon lii waroon ngeen tànn keneen ku ma ëpp xam ku ma gën a mën a jotal mu jotal lu gën a leer lii ma jotal nii ndax waaw dama damay damay dama dama bi may jën léegi damaa waxtaan ak sëñ Samor ci sëñ Mor Penda mu ne ma sëñ moor say bokk doyloo la doyloo la ak nga doy leen bokkut fi ne nit dana doyloo ko doyut te nit waxtu woo doonee kilifaam loo def lu dul mat ko royuwaay defoo la nga war a def nit su fekkee da ngaa war a doon royuwaayam loo def lu dul mat ko royuwaay defoo la nga war a def kon ay royuwaay lañu war a doon ci kër sëñ Mor pend dañuy fexe ba ñii war a roy ñun bu ñu xoolee xam ne ay royuwaay lañ sëñ Mor Penda mii ñu wane ñëpp xam ne royuwaay kon ñii ci sëñ Mor Penda ñëpp dañu war a bàyyi xel ne ay royuwaay la ñu war a doon ci ñuy war a ñoom nit koo xam ne royuwaayam nga war a doon loo def lu dul mat ko royuwaay defoo la nga war a def kon maa ngi jégalu ci kàddu yi di baalu àq ñëpp di ñaan yàlla suñu borom mu nangul nu jëf yëpp dellu delloo siyaar sëriñ sëriñ euh, ahmad si Cheikh Mor Mbacke mi nga xam ne moo toog ci bopp jaboor sëñ Mor Penda yi di la wax ne mbooleem li ñu fi daje lu ñu fi yëngu ak luñ ci def yow lañ koy defal ñëpp sa baat lañ fi toogee loo wax lool la ñuy def njaboot si Mor Penda gépp tënku nañ ci sa ginnaaw ah, loo wax loolu loo digle loolu la ñuy def loo teral loolu la ñuy bàyyi loolu la ñu fekkoon mag ñi doon ci maa ngi jégalu ci kàddu yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh waaw hmm. ah. waaw sëñ Babacar daa wax ne am na baat yu ma wax ne naa ci naa naa ci daal ciy dox tuuti mooy sëriñ Mor Penda amoon na ay doom amoon nay bokk d'abord amoon nay bokk sëñ Mor Pend ak sëñ Ibra Fëri mi jur sama baay ñoo bokk daam Seynabou daam Seynabou jur sëñ Mor Pend jur sëñ Ibra Fëri jur sëñ Mor Anta bàyyi bàyyi sëñ Mbàkke Salu waaye sëñ Mor Pend bi mu fiy bëgg a jógee bi mu tolloo ci dëgmal boromam dafa woolu sëñ Ibra Fëri ca guube mu ñëw mu ne ko Ibrahima mu ne ko Mbàkke mu ne ko dëgmal naa sama borom te du ma dëpp ma bëgg laa dénk njaboot gi bu ci mere kenn bu ci bañ kenn bu ci foñ kenn fu ci waaye nekk na ko jëli andi ko dimbale ko te taawu loolu la sëñ Mor Penda waxoon sëñ Ibra Fari bi mu koy wax sëñ Ibra fekk na sëñ Ibra gor na Daaru Mbàkke ba noppi nit suñu lay njaboot te amoo suuf soo moomal sa bopp soo xam ne mën nga faa yor lañ lay dénk mën a góogoo téye fekk na sëñ am lu mu moomal boppam ba nopp bakk fi sëñ Mor Penda jógee sëñ Ibra dafa jël njaboot gépp yóbbu leen Daaru Mbàkke jël doom bi boppam jim jural boppam may ko sëñ Mor Penda sëñ Modou Mor mi bàyyi si Cheikh moor mi xale ba mu ko may faatu sëñ Ibra Fari tuddaat ko keneen ci gone yi kooka faatu muy ñaar ñu faatu sëñ Ibra Fari ñëw fii ne ca la ma bàyyi Tuubaa nettali ci sëñ Mbàkke pend ñu bokk sëñ Mor Penda ndey ak bàyyi ne ko sëñ Mbàkke mu ne ko waaw mu ne ko sëñ Modou mii lu ci sëñ Mor waxoon ñaari doom faatu nañ moom ci bëgg koo may soxna ñëpp faatu sëñ Ibra si sëñ Mbàkke Penda ne ko sëñ Moodu mi lu sëñ Moor waxoon sëñ Mbàkke Penda ne ko waxoon na soxna Sala Mbàkke ne ko dee ko duyeel ko baleel néegam bi kon foofa la dem jëli soxna soxna Sala Mbàkke moo jur sëñ Seexuna mi taaw sëñ Moodu Moor keroog ba sëñ Ibra tolloo fa sëñ Moor toll woon daa yónnee woolu sëñ mi taaw sëñ Moor Penda mu ñëw mu wax ko la ko sëñ Moor Penda waxoon mooy waajuru sëñ Seex Moor mi daal ko ne Moodu mu ne ko Mbàkke mu ne ko dëgg ma laa yebal xiyaam te du ma dëpp moo bëgg laa dégg njaboot gi bu ci mere kenn bu ci fañ kenn fu ci waaye nekk na ko jël dimb ko dimbale ko te taxawu ko loolu ki ma ko nettali bis damaa toog ak Baye Daam Mbàkke ak sëñ Baara Mbàkke ñuy wax ba ak si sëñ Baara sëñ Baara ne ma loolu de ba ko sëñ Ibra di wax sëñ Moodu Mor maa ngi toog ndaw moo doxee ndaw moo jógee gube samp xelam ba maam ba na ñëw wax si sëñ Moodu sëñ sëñ baara ne damaa demoon mbéy bi ma ñëwee ne ana sëñ Modou Modou ñu ne ma nga jëm Goubé ma sol sama mbubb sama sama xel damaa dox rek na ba Goubé bi sëñ di wax sëñ Modou Modou loolu amoon nañ lu ñu waxee sëñ Modou Modou wuutu sëñ kenn jooyut kenn amul lu ko naqari ñëpp tege siraatal ma ba sëñ Modou Modou génn àdduna sëñ Abdou Del bi wuutu ko di def la ñooñu doon def ba génn àdduna sëñ Baara wuutu ko di def la ñooñu doon def ba génn àdduna sëñ daa Mbàkke baag si ci sëñ Basiiru Mbàkke bi sëñ Moodu Mor baag si ci sëñ sëñ Fàllu Mbàkke baag si ci sëñ Seex Mor tey jii muy muy ñoo xam ne li ma waxoon léegi ca ca bayit wa nasabun taxsibul falaa bihu laaw ñoom amul mandargay adduna yii ñuy xew ñu ciy soow ci nit ñi doo leen ci dégg ñoom lu ñu dégg lu ne jàng ak jàngale doon ak dem tool waaye desu leen dégg ci yëngu-yëngu adduna yii xew nii ak melokaan yi amuñu xel moomu ñoom xelam jaamu yàlla lañ am amuñu meneen xel mu du loolu moo tax dañu wax ne bàpp gi seen xel dafa gàtt waaye dafa rafet nag waaw. kon wax ji mën na. waaw li hmm. hmm. seen wareef ci waxtu wi. Hmm. mooy njabootu sëñ Mor lan mooy seen wareef ci waxtu wi mooy ñu bàyyi xel ne ku des dese bu ñuy tudd ay maam ba maam yee dem ñu tudd ay baay ba baayee dem ñu des fi ay mag ba mag yi ci ëpp dem ba yow mi doonoon ko rek te yaay mag mi kay am na responsabilité boo xam ne dab na la. loo war a def mooy lan mooy ndokk bi nga xam ne jàngal nañ la te yar nañ la léegi li des kay mooy xool fa sa waajur a tegoon tànkam xool fa sa waajur a tegoon tànkam nga teg fa seen tànk loolu moo war njabootu suñu Mor Penda gépp tey jii muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw na ngeen bàyyi xel ne dëkk bi ñuy yeewoo muy Touba yéesu leen fi ak njaboot te du ngeen ko fi mas a yees ba faw dafa am jëmm ji may mu ne ma li ñuy xemeem ci nit ak di ko ca ñee benn yoon lañ koy am ci Sëñ Tuubaa lay jóge da fay dem wala ñu demal la fa ñaar yooyu dafa ne man li ñuy xeemeem ci nit wala ñu di ko ca ñee fenn lay jógee ci Sëñ Tuubaa lay jógee ñaar la koy may da fay demal sa bopp wala ñu demal la fa rek ñaar yooyu bu fàttee mënatoo ko am yéen amoon na ku leen demal ci Sëñ Tuubaa am na lu mu leen fàgguloon loola mu leen fàgguloon bokk yi nañ ci bàyyi xel kenn ku ne ci nun na ko jàpp xam ne bokk gi nu yàlla boole alal yàlla amoon na ma amoon na maam ju baax ku ñuy wax sëñ Ibra Ndumbe mooy waajuru sëñ Seex Seynabu sëñ Ibra Ndumbe bi mu fi bëgg a jógee dafa dénkoon ak njabootam ñe leen dénk naa leen ñaar mooy bokk gi ak diine ji bokk gi alal yàlla ku nekk ka nga bokkal du sa coobaree bopp tax nga bokk ak moom yàlla la soob mu boole ak moom kon du sa coobaree bopp ak bokk yàllaa koy def daal ne bi ci des mooy diine ji moo tax yàlla bind leen wa maa xalatul jinna wal insa illaa liya'buduun kon na ngeen bokk nangeen ngeen fonk bokk gi te fonk diine ji waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. sëriñ Cheikh Ibra matal nga te nga yàlla yàlla fay la bokk yëpp bég nañ dëkkandoo yëpp bég nañ mboolem ku teew ci jotaay bég nga jërëjëf. Euh, Ibrahima Mbakke kàddu yooyu du moon ñoo ñàkk si jotaay bi leer na lool. xam naa loo ci dolli woon day xaw a gën a métti ci xol yi ndax xol yi fees na sedd na xel yi dal na fa tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiin jataay bi jur na njariñ bu baax a baax a baax xam naa rek ñu dellusiwaat ci mbokk yu tedd yi nga xam ne teew nañ ci ci bis bi sëriñ sa Mbakke ibnu Cheikh Abdul Ahad moom sëriñ Soxay bu Mbakke teew na ci jotaay bi délégation comité de organisation ci njiital Serigne Bassirou Abdou Khadir Mbacké teew nañu fi waaye mu yebal fi Serigne Abo Mbacké Xasida secrétaire général mu ànd ak mbokkam xaritam Serigne Murtada Boussa Abdoul Wadoud ànd ak Serigne Jili Boussa Abdoul Wadoud ànd ak Serigne Murtada Lo naka noonu it Serigne hmm, Fallou Ka ibnu Serigne Mouhamadul Kabir Ka moom Serigne Moussa Ka jataay bi fa tabarakallah Cheikh Moussa Ka weerukaanu Cheikh Ahmadul Khadim waaye naka noonu monsieur le maire Serigne Abdoulahat Ka yabal na fi ay ndawam ci njiital Serigne Murtada Lo fa tabarakallahu ñoom ñëpp ñëw nañu ci bis bi ànd ak njaboot gi tànki ñëw yi ak yu ñibbi yëpp yàlla na doon tànki tuyaaba ak yiw ak yëkkatiku daraja fa tabaarakallaahu comme noonu ñu ko waxee rek sëriñ Cheikh Thioro député teew na fi sëriñ Xaasim Mbakke teew na fi ñooñu ñëpp bokk ci gan yu tedd yi nga xam ne teew nañ fi ak sax ñoo xam ne xëy na teew jotaay bi te seeni tur egsiwul fii waaye ni ma ko waxe woon rek sëriñ bi moom gis na ñëpp yëg na ñëpp fa tabarakallah kon loolu lam solo la soxna muslim Mbakke moom Cheikh Amadou Fadal teew na fi jàllale woon na ko fa tabarakallahu di sunu soppe di sunu wëllëre di sunu xarit yàlla guddal fanam te wéral ay cëram te defal ko ay tawféex fa tabarakallah kon mu mel ni euh, gannaaw bu ñu jógee ci Cheikh Ibrahima ak xamle gu am solo gi mu def kàddu yu am solo yu mu jàllale di xam ne loolu moom ab yóbbal bu rëy rëy la ci sunu digg ak kilifa gu baax gii ñuy fàttaliku fa tabarakallahu di ko dara jaale bis bi comité de organisation bi nga xam ne ñoo yore wàllu màggal gi ànd ak waa rawdu rayaaxiin yi nga xam ne dañ leen dénk lépp luy bernde ci màggal Tuubaa jëm ci wàllu xam-xam ñu àndandoo ndaxawal jataay bi cërale ko njabootuk sëriñ Mor ñoom itam njaboot gi amel nañ leen njukkal amel leen ngërëm fa tabaarakallaahu ahsanal xaalaqiin ndax dafa mel ni euh, cër la boo xamante ne bii cër la bu rëy rëy la bu ñu yëg fa tabaarakallaahu nga xam ne ñoom ci xam-xam la ñuy yëngutu waxtu wu nekk te lépp loo xamante ne bii ña nga ci rek loolu mooy la am solo bu baax a baax a baax sëriñ ajuma zen meeru Pataar teew na fi ànd ak délégation bu am solo moom fa xam nañu diggam ak njabootu ko sëñ Mor Penda digganteem ak Mbampana euh, ak euh, Daaru fa teew na fi ñu ngi koy dalal jàmm njabootuk sëriñ Abdou Khadir Mbacke Fari Mataloo teew nañu fi naka noonu it ndeysaan bari na gan ñu fi teew xam naa su ma jotee ci liste bi rek mën koo jàllale waaw sëriñ seexu naa mbàmp na su ma mënee jege yittewoo nañ ko fii sëriñ seexu naa mbàmp na seexu naa mbàkke mbàmp na su fekkee mën na maa jege yittewoo naa ko fii waaw sëriñ Aliou Bousso moom sëriñ Amar Bousso teew na fi sëriñ aboo Mbacke moom sëriñ Basirou Mor teew na fi njabootuk sëriñ Cheikh moo Maram Dieye teew nañ fi njabootuk sëriñ Madoun Dieye teew nañ fi njabootuk sëriñ Moussa Ka ci njële sëriñ Fallou Ka tudd naa ko léegi teew na fi naka noonu njabootuk sëriñ Cheikh Seynabou teew na fi njabootuk sëriñ Cheikhouna Sidi teew nañu fi njabootu sëriñ Mbàkke astu teew nañu fi naka noonu njabootu sëriñ Murtada sëriñ Murtada Buso moom sëriñ Abdul Wadood teew na fi sëriñ setu Mbàkke moom sëriñ Abdul Ahad mu sëriñ son yi bu wax naa ko léegi teew na fi kon njabootu sëriñ Mbàkke Ramata ci sëriñ Tuuba Mbàkke njabootu sëriñ Mbàkke Ramata ci sëriñ Tuuba Mbàkke akasa teew nañu fi fa tabarakallah kon nag kàddu gi la ñuy jël jox ko Serigne naa Mbacké mu yëkkati ay kàddu ci turu Serigne bi Serigne euh, sëñ Ahmadou Mbacké xalifab Serigne ma sëñ Moustapha Massamba teew na fi léegi ci jotaay bi moom itam waa kër Serigne du Fari ñu ngi fii fa tabarakallah xam naa bu sëriñ Seexuna noppee nag kàddu gu mujj gi moo ciy des waaye bokk na ci liñ jot ci ndigal mooy sëriñ bi bu jógee ba ànd ak kilifa yi ngir saafonteeg ñoom fee ñu leen war a dalal mbooloo mi moom ñoom mën nañoo toog seen place am na xiiwal yoo xam ne fi lañ bëgg mu fekk leen fi kenn ku nekk fa nga toog ci yéen waa tribune bi bul jóg incha allahu rabbi xiiwal yi fi lay fekk fi nga toog kilifa yi nga ne nag sëriñ bi daa war dalal ak ñoom saafonteeg ñoom kenn par kenn su ko defee ñoom ñu dem ci bâtiment boobu séq ak lañ séq sëriñ bi foofa xam naa bu sëriñ Seexuna daaneelee sëriñ kàddu sëriñ Ahmadul Badawiyu gi nga xam ne moom moo jiite daayira Rawdu Rayaahiin te kàddoom nag nekk kàddu boo xam ne ñaari taxawaay la ndax kàdduk xalifa Sëriñ Muhammadul Muntaxa ak dafa laaw nasara ci biir jotaay rawatina ak kàdduk rawdu rayaahiin waaye kàddu googu nag nee na Sëriñ Mbàkke Abdourahman al alimul alam moom moo ko koy jàllaleel ginnaaw bu Sëriñ Seexuna daaneelee waaw bisimilah kon Sëriñ Seexuna njabootug Sëriñ Seex Moor gi nekk ndeele ñépp teew nañ fi kon daal mbokk yeeg xarit yeeg soppe yi ñëpp daal teew nañ fi sëriñ Seexuna bismillah tafaddal maskura وينك على كل قاسم وينك على خلق عظيم ونكل على خلق عظيم يقول لطان الهالك قديم ما ما كان الأقدار بلا يسار يقيني إلى الجنة باق يغيبني إذا هو بالمختار كليتي يغيب ملكه برب المخجل الموج واليمين بمتي الذي انسى ذا الفلك كالغم لربي توجه بحمد وشكر وولي كان ويتقني مرابي عادية كوني جربي قديم ما نقاتله بسكر وروح عزمي متاياك يا كل كل قدرك ولكنه دلت الجار والنسل مغامات خير الخلق مغامات خير الخلق Muhammad al-Mukhtar al muxtaar محمد المختار عليه السلام امرك امرك امرك امرك امرك امرك امرك امرك امرك امرك امرك امرك léppam yàlla fabal fabal ma ko ma defal ne say baaraam say baaraam Serigne Mor Penda Serigne Mor Penda ma jot fi jool fabal léppam yàlla fabal nooran tulu yokkob sa diine jub jubale Serigne Mor Penda nii may way damam gi diis na gan ni ci ñun te diis ci lislaam ji diis woon wi li leeratale foo amati toll foofee dem gara raw na foofa ca ñun ca yàlla ca yàlla sëriñ Mor Penda dem na rekk ni la yàlla mi génne seen maam ju baax jaadu na yàlla mi génne sëriñ Mor Penda sëriñ Mor Penda aduna yàlla ko na rekk ca jana ca jana Cheikh Benna Mbacké yàlla fanu yàlla fanu Cheikh Benna Mbacké amina amina maman amina ca darajay Mamadul Aminu jërë ngeen jëf yàlla na ñëpp am maa ngi leen di ñaanal baax Serigne Cheikh nag leen di ñaanal di ñaan ci barke Serigne Touba yàlla na ngeen bokk ci milaadeeri Serigne Mor ndax Serigne Bara sëriñ Baara Mbàkke Xelkom maa ngi moom noo bokk nekk ci massification mu faytu ma fu ne dem ba léegi maa nga ci waañoo dem ba léegi maa nga waaye yàlla na ngeen jàmm jërë ngeen jëf alla xam naa oto bi nga xam ne marque bi 42 36 la DK dafa mel ne fi mu gaare dafa gaare ci bunt bi te am kilifa gu mu baare mu bëgg a ñibbi su fekkee mi ngi ñuy dégg mu xam toppale oto ba ndax kilifa googu mën a jàll xam naa sëriñ seexu naa maa la waxoon maa lay jox kàddu gi waaye maa ngi lay ñaan rekk ñaari minute ñu jox sunu waajuru sëriñ ma dem ba mu tënk ay kàddu yu gàtt rek ci turu taalibe yi ndax ba sëriñ joxe see wax dootul mën a waxati foofu rek laa ko ñu may dugal kon Baye Cheikh Fall incha allahu rabbi ña bootug sëriñ Mor Xarasi teew na fi ak sëñ Malick si sëñ Malick si si teew na fi waaw fa tabarakallah fa tabarakallah kon sëñ bi daawoon toogal tuuti rek sunu baay seex yegg si anamu koy baay seex Fall jawrin ci kàddug taalibe yi moom mooy président daayira ahiba i Cheikhul Khadim yu aju ci kër sëriñ Bassirou Mbacke moom sëriñ Modou Mor mu sëriñ Mor Penda kon su ñëwee rek ñu jox ko mu tënkal nu ay kàddu ci tuuru taalibe yi bisimilah jawrin auzu billahi asalaamualeykum bokki jullit yi bokki taalibe yi nu ngi leen di nuyu ci tur dongo yi di leen siyaara di leen ndokkeel di leen massawu coono di jiital ci nuyoo bi saahibul fadila a seex sayidil muntaxa xafisahu llahu wa rahaahu bu nëppee ci kàddu yooyu ñu teg ci cheikh ahmadul badiyu ibnu cheikh mahamadul fadal teg ci sëriñ ndaam ibnu cheikh mohamadul murtada ibnu cheikhul xadim teg ci sunu wasila di sunu cër ci sëriñ Tuubaa muy a cheikh moorpend Mbakke ibnu Cheikh Modou Mor mi fi toog jataayub Cheikh Mor noo ngi leen di nuyu ci dur dongo yi di leen sant di leen gërëm di leen xamal ne sëriñ bi li nga yàkk sàkkoon ci bis bi mel na ni am na ndax woote woon nga ci turu sa jawrin muy sëñ Seexuna Mbàkke ibnu Seexu Mamadu Ba Mamadu Lamin woote bi jot na sëkk def na ciite ju ma sëkk waaye nag nit ñi itam def nañ ciite yu ma sëkk fenn fu nekk waaye bàyyi na fa ngir barab bi ak bis bi ak jëmm ji nga xam moom lañ fa doon waxtaane tey jii muy Seex Muhammad Moor Penda mi nga xam ne kenn ku ne xam na ne am na cër ci sëñ bi mu mag ndax kàddu googi sëriñ doon wax ci sëñ Mor Penda ci julli gi sëriñ Bachirou Mbakke ibnu Cheikh Momadou Mor moom moo ko nettali ci làmmiñam ne dafa am benn bi sëriñ bi ànd ak sëñ Mor Penda sëñ Mor Penda ŋàbbu der bi ak satala gi bi nu agsee ñu jóge ndaam mel lu jëm barab ba waaye moom li wax mooy bi ñu toll fi guy siyaara foofii la yoor yoor boo xam ne jàll na ba dëgër sëriñ bi taxaw temm sëñ moo daal teg der bi jubale la sëriñ bi jël tànkam jubbanti der bi ba jub jublu feneen mu taxaw di julli sëñ moor ca teggin ya ak yar ba ne tekk di déglu ba sëriñ bi noppi bi sëriñ bi noppee ne ko Mor Penda de xanaa am nga jaaxle ci fin fin fin jublu mu ne ko waawoo am na ci jaaxle waaye am na lu ma gën a jaaxal mu ne ko xanaa du li ngay seen ci biir mu ne ko waaw loolu de moo ma gën a jaaxal mu ne ko loolu de takkul ci xeb la foo ma jublu dana fa jublu te loolu sëñ Moussa Ka leer na ko seex bambam seex bur yàlla se njool makka may ko sa aaba xeb la gu bamba jublu muy kaaba loolu kon day daal tegtal yoo xam ne dëgg gu wér la kon nag ñu xam ne jëmm ji ñu doon waxtaanee dañ bokk yàlla ko muy suñ bunt ci sëriñ bi ñoo ngi ñaan ci sun képp koo xam ne teew nga fi yàlla nga dugg ci ngërëmam loole dugg ca liggéeyam boobee dugg ci jëfam joojee nga xam ne matal na sëkk ci yar ba teggin ya nii ko sëriñ si wax yi ñi fi jiitu mën nañ cee jànge mën nañ cee nafare mën nañ cee fàttaliku loo xam ne danu jëriñ tey ëllëg kon nag sëriñ bi noo ngi sant ñëpp waaye noo ngi sant mboolem soxna yi nga xam ne fa tabarakallaa fu nekk bàyyikoo nañ fa ñëw teebe teewe si bi bii te mat ku sëkk kon nag yal na yàlla faj aaju yëpp yal nañ ko woote ay yoon yoon noo ngi santit rawdu rayaahin bi nga xam ne ñoo jël mbir mi teg ko ci cërale ko sëriñ Mor pend ñoom it mel na ni am nañu yëg ci sëñ bi am nañu cofeel ci sëñ bi waaye nag am nañ ci xam-xam am nañ ci tawfeex yàlla na ko yàlla yokk sëriñ Amadou Badi mi ko jiite ci ndigalu sëriñ bi yàlla na yàgg ci kanam ñi jiite ñu yàgg ci gannaawam te lépp luñ jëf day ca ngërëmul sëriñ bi allahumma salli ala sayyidina wa sallim euh, jërëjëf jawriñ sëriñ Cheikh Fall man yàlla guddal fan yu te wéral cër yi kàddu yooyu doon toon mën a ñàkk kon njëkk a teg waxtu wi rek nu jox sëriñ Cheikhouna Mbacké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 rabbi aawuzu bika min hamasaati shayatin wa aawuzu bika rabbi an yahduruun alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayidina wa mawlana muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa gayri xadimihi wa ummatihi wa sallim taslima saddid lisaani nawwir janaani saffi amaani wasid baraa'i asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yu tedd yi fi daje yépp ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ndokkeel di leen balu xaq di jiital ci nuyoo bi ak siyaara bi saaxibul fadila al cheikh muhammadul muntaxa mbakke xaadimu rasul xafisahullah wa raxaa Euh, di teg ci nuyoo bi ak jotaay kilifa yu tedd yi nga xamante ne bii ne ñoo teewee jotaay bi te nekk ci bopp bi a cheikh ahmadul badawi wa cheikh ahmad dam mbakke cheikh yi ibnu cheikh mouhamadul murtada ci turu sunu sëriñ sunu kilifa ci la ñuy kàddu gi ñuy yëkkati ak ci turu njabootug sunu maam ju tedd ji ñu fi dajale mu di sëriñ Mor Penda Mbakke radiyallaahu ñu ngi leen di jottali nuyoo njabootug sëriñ Mor gi yëpp di góor ñi di jigéen ñi di sëriñ si di taalibe yi di soppe yi di wëllëre yi di bokk yi yëpp seen kàddu ci lañu leen wuutu di ci wax donte la sunu jëmm xeebu na ci sunu xam-xam matiwu ko sunu kàddu itam leerul waaye ndigal nag moom day loo xam ne buñ la ko santee lu mu metti metti ak lu mu diis diis njariñ rek moo cay topp ndax sëriñ bi daf ñu ko waxoon laa tafxalu shay'an bi gayri isni fal isnu shartun fi qabul sha'ni moo tax kon kàddu yi dana niru lu diis waaye dana mën a woyof ci wet kon bokk yi nga xamante ne bii ne njaboot ak sëriñ Mor Penda ci njiital sëriñ Mamor Mbacke mi nga xam ne moom moo tooge jotaayu Cheikh Mor Penda Mbacke radiyallahu anhu woote na ngir sunu maam ju tedd ji nga xamante ne bii ne moom la wan jamono tey ngir ñun ndaw ñi ñu mën cee jànge mën cee roye ci ngir ñu ji ngir moom moom ci la ji ci la woote woon waaye bi mu wootee itam woon bokk yépp waaye sant na yàlla bu baax a baax ci woote bi jotal na waaye itam bokk yi sagal nañ ko siggil nañ ko ndax ñi ëpp mën nañ ne wuy si nañ buñ ko doon tënk dañuy wax ne kër gi nga xamante ne bii ne moo tënk yoonu murit muy maam maharam radiallahu anhu ci tuuram ci lañ woote woon waaye kër maam maharam mën nañ ne kenn desut bunt kër yi soqi ko ci maam maharam bunt bu ci ne am na ku fa bàyyi ko ci njaboot ga ñëw wuy si sëriñ bi ci wooteem bii woote bi nag mi ngi doon woote boo xamante ne bii ne woote lislaam la ndax li nga xamante ne bii ne moom la sunu borom subhanahu wa taala santoon jullit ñi te waxoon ko moo di yaa ayuha alladina amanu stajibu lillahi wa lirasul isaa daakum lima yuyikum loolu yi ci la sëriñ bi sukkandiku ba woote waaye bi mu woote itam yéen tamit dégg aaya bopp moo tax ñëpp wuy si nañ ñi teew kon dañuy wuutu ñi teewul moo tax kon sëriñ bi mu ngi jël kàddu yu cant ak i ngërëm ak i ñaan jëme ko ci jël kàddu yooyu barkeeloo ko ci li nga xamante ne bii ne mooy aaya boobu yi di sant yàlla bu baax cant goo xam ne cant ak xol la ba fees dell ci xol mbégte mi ñu koy feeñal nag di ko tudd jéem tudd ci làmmiñ moo tax kon sëriñ bi wax ne nañ jël kàddu gi santal ko bokk yi woote na wuy si nañ ñii nga xamante ne bi ne ñu ko waxe woon mu di njabootuk maam maharam bi ñu wuy si de kenn ku ci nekk ci ta ci bunti këri maam yi noonu ñu ko waxe benn buntu kër boo xamante ne bii ne amul ko bàyyikoo ci kër googu ñëw fi ah mën nañ ne néew na lool kon sëriñ bi nee na sant na bokk yëpp gërëm nañ ñëpp waaye nag noonu yi mu santee kër yooyu yëpp cant gi nag di ko gën a wàccewaat mu gën a jege si ci sëriñ moor muy bunt bi nga xam ne ca la jaar ba dem ci maam maharam mu di kër Thierno Farimata te mu mel ni kër Thierno Farimata buñ ko waxee dafay doon lu yaatu waaye day doon loo xamante ne bii ne ñaari jëmm rek lañ koy mën a tudde fi mu toll nii mu di maam Samba ak maam Dame Ahmad Dame Seyna bu muy wajuru Serigne moor Penda ak maam Samba Seyna bu mii rakkam te ñu àndante woon liggéey bi ba njaboot gi génn ci bokk ci njaboot googee sëriñ moor mii ñu doon xam xamle tey te di ko wane. kon sëriñ bi nee na mi ngi jiital ci cant gi di ko gën a yaatal ci ñaari kër yooyu nga xam ne ñoom la seqal bés bi ñaari kër yooyu itam. noonu yi ñu séqi jotaay bi ñoom ñëpp kenn ku ci nekk juróomi buntu kër wala juróom benn rek mën nañ ne mooy ñaari kër yooyu waaye kër gu ci nekk ci ñaari ci juróom benn buntu kër yooyu sa njaboot a ngi ci jotaay bi di ay góor di ay jigéen te yemuñ ci dikk wuy ci dikk toog di déglu ba jotaay bi jeex ñu dem dañoo dikk ànd ak pas-pas ànd ak yéene yéene ji mooy lii nga xamante ne bii ne mooy waajtaayu ba nëga ni fuñ ci toll ñoog ñoom ñoo ko àndante kenn ku ci nekk wane nga ne bisab sëriñ moorkat kat bisab bàpp gi la te bàpp gi mooy mooy maam daam ak maam Sàmba kon ñoom ñoo ñi kenn ku ci ne jël nga sa alal kemtulaay la la jamono may wane nga ne boo amoon loo defe bis bi lépp te jamono may la ko yéene nga koo def ndax xam nga ne sëriñ Mor mii ñuy waxtaane sëriñ Cheikh moor daa doon jëwriñ ju leen fa wuutu waaye ñoom la nekkal ci jotaay ba kon sëriñ bi nee na mi ngi leen ciy sant bu baax a baax di santaat itam ñi nga xamante bi ne ñoom la sëriñ moor bokkalaat ci biir askan wi ñoom ñëpp kenn ku ci nekk sa taxawaay mat na sëkk rafet na lool bokk yëpp di néegi kër way jur yi ni ko waxee ci maam daam ak maam sàmba noonu lañ koy waxee ci néegu jur bu jigéen wi nga xamante ni bii ne moom itam day delluwaat kànk ak yaañ kon ñoom itam seen taxawaay ak mooy sëriñ moor ak sëriñ malik muy moor ak malik ndax ñoom ñooñu noo nii lañ àndantee ca sa kër ibrahima awa ñang noonee lañ àndantee ci bokk noonu lañ àndantee ci sëriñ bi ci pas-pas ñu am xalaa xamu rëgër boo xamante ne bii doxoon na seen diggante te ñu ngi koy sàmm njaboot gi di ko doxal ba nëgëni kon sëriñ bi mu ngi ciy sant bokk yëpp di leen ci ndokkeel bu baax a baax noonu itam ni lay sante bokki boppam yi nga xamante ne bii ne ñoom buñ dee wax taarab sëriñ mooy ñoom ndax ak bokk gi ci gën a dëgër mooy bokk pas-pas te dañoo bokk pas-pas ci diine bokk pas-pas ci sëriñ bi bokk di dëkkandoo bokk di yëkkateendoo di xàccandoo luñ nekk ñu àndante ko te lool yi mooy li ñu alxuraan waxoon wa atiu llaha wa atiu rasul wala tanasahu fa tafsalu wa tashaba rihukum ay bokk bu ñu àndee lu ñu yor dañ koy bokk waaye luñ bokk itam lum tuuti tuuti yàlla dana ci wàcce barke ñu mën caa jariñu ñëpp mën caa doylu waaye lu mu néew néew itam buñ ko bokkul wala mu baree bare itam bu fekkee bokk amu ca fa muy mujj itam du am solo ndax bu booba waaw lii yàlla doon wattandikuloo jullit ñi rek ca la ñuy mujj te bu boobaa kon du am njariñ moo tax kon sëriñ bi ne woon kàddu yooyu da koy jëme ci bokk yi nga xam ne waxoon na leen ñu wuy si ko ñoom ñëpp ñoo ñii kon wax duñu mën a dellusiwaat ci tudd kenn ku nekk ci ñoom waaye am nañ yéene kenn ku ci nekk kër gu ne ka fa jóge doon tale fukki nit a nekk itam ñu dajale fukk ñooñee kenn ku ne jaar ci saw tur waaye kon loolu yi xataayu waxtu wi ak jamono ju guddi ji ak nawet bi ak ñiy war a dellu fa sore moo tax sëriñ bi ne woon cant googu na ko jël jëme ko ci njaboot gi ak dëkkandoo yi nga xamante ne bii ne ñoom la ko yàlla booleel ci dëkkandoo ndax dañuy wax ne aljaar xabla daar bala ngaa wut kër da xool fi nga xamante ne bii ne fala sa ay fala sa ay fa nga xamante ne bii ne fa nga bëgg sag njaboot mel ni ñooñee jikko yee ki ne ci bopp bi mooy sëriñ bi ñu tudd léegi te foofa lañ bàyyi ko fa la delluwaat kon waa gaar ba sëriñ bi mu ngi leen di beral ak can yàlla na yàlla nañ ca lab te buñ ci génnaat ba mukk muy jikko yi ñu doon wax ci Cheikh Mor Serigne Mor duñ ci sori moom ndax ba bis bi bañ ko tuddee ba nëga ni ci la ñuy wax di ci dox kon li ci borom xam-xam yi wane loola doy na sëkk li ñu ci defe mooy jéem a seet kenn ku ne tomb bu mu mën a jël ci Serigne moor mu fas yéene jël ji tomb boobee def ko muy ab lëkkaayam di takkaayam goo xam ne fu mu toll ànd kook moom cant googu yi ba tey sëriñ bi mi ngi koy delloowaat di ko jëmee ci kii nga xamante ne bii ne mooy kilifa dëkk bi noonu ñu ko waxe woon di Cheikh Mouhamadul Mountakha mi ngi koy ñaanal nee na yàlla guddal fanam te wéral ay cëram te lii nga xamante ne bii ne moom la sumb yéene ko te am pas-pasu boo xamante ne bii ne bu kawe la muy yitte ju kawe te yëkkati ko te ne bu mu laal suuf yàlla na ko yàlla taawul loolee ba du laal suuf moo tax kon sëriñ bi ne raw daairatu rawdu rayaahiin ñoom seen ak cant mooy cantuk murit yëpp ndax li mat def ñi ngi koy wane ñi ngi ciy dox di ci digle te koo ci gis ku nekk loolee ca lay nekk ca lay xëy di ci gont ci njiital sëriñ Ahmadul Badawi kon sëriñ bi nee na mi ngi feddali kóllëreem akuk jàppam ci daaira bi di wax waa daaira bi ne leen kër sëriñ Mor Penda day takku nañ yee salaat seen laxasaay di leen wan ne ñu ngi ànd ci rawdu rawdu rayaahiin fas yéene bépp activité boo xamante ñi ngi koy def ñi ngi ci seen biir ànd ci ñoom lépp lu ñuy nos nañ xam ne ànd nañ ca ndax jotaay yi xëy na bu fekkee